asalaamualeykum asalaamualeykum asalaamualeykum mbokk yeeg xarit yi am di jàmm yi soppe yi àndandoo yi maa ngi leen di nuyu yéen ñépp ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant gannaaw ba ñu santee yàlla mi ñu may kàttan ak tal gi ba ñu mën a dellu waat fii ci penc seneweb point com bi fas leen yéen indil lii di seen émission bii di penc mi wax sa xalaat am kontante ak mbégte ak sawarte bu rëy rëy rëy rëy rëy war a jàkkaarloo woon ak jàkkaarloo waat ak yéen pour ànd ak yéen ci waxtaan bu am solo bu yaatu ba ñu mën a décortiquer li nga xam ne moom mooy actualité bi ah xam naa tey moom foog ngeen jàppale ma rek ci proposer proposition wu xam naa du ñàkk ni azu Sanoxo foofu ci kanadaa dina ci am une idée ndax nii nii nii nii nii nii nii xam naa sax di ngeen koy seetlu ci wax ji maa ngi essayer dem di lii rapidement lii nga xam ne moom mooy actualité bi pour aussi aussi donc di waxtaan di leen di nuyuwaale yéen ñi xam naa yéen ngi yéen ngi koy dégg wante xam naa du ñàkk ni ñoom Omar Omar mbay du ñàkk ni dinañ dinañ ñu baaxee benn thème nga ñu baaxee benn thème ba nga xamee nii dañ ci mën a sottante xalaat bu baax Abdul Aziz maa ngi koy nuyu foofa ca Ziguinchor Abdul Aziz ca Bukot nuyu naa ko Ibrahima lii moom lum wax mi ne parle-nous de ton projet de maire non man j'ai pas de projet de maire Ibrahima voilà li ngay bëgg tiiñaa nit yëpp su ma la j'ai un projet de maire j'ai un problème de d'un projet de députation incha allah ci kàttanu borom bi 2017 bu neexee yàlla bu la projet boobu laa am Ibrahima pas maire mais député. xam naa du ñàkk ni Ibou na dellu si waat ci kanam tuuti du ñàkk ni Ibou dina ñëwaat tuuti ah ñu ànd ak yéen ci waxtaan wi ah allo Ibou. oui. waaw saa xaw xaw na buddi buri tuuti moo tax ma dindi woon ko. ah oui mbaa buri bi taxaw na. waaw léegi léegi taxaw na léegi c'est bon. ok ok na ngeen def ça va. ça ci jàmm. ñi ngi sant bu baax a baax. ñi ngi sant bu baax a baax. na ngeen def nag. tey mooy thème bi. waa thème de laay wër ni fi mu toll nii ndax gars yi mënuñ ma ci ah. dafa mel ni am nañ ko de. ah. waaw waaw thème bu doy waar sax. Euh, ah, amaat si kon ma déglu ma déglu ma déglu. waaw xam nga démb démb bi ñuy wax affaire Aliou Sall bi. waaw euh, da nga da nga ne woon ah nañ ci rafet njort rek du ñàkk am na ay partenaires yoo xamante ne ay nit yu baax lañu wala ñoo xamante ne et cetera daal rafet ci njort daal. Ah, ne nañ ci def ndànk daal maanaam. Ah. man nag bi ma bi ma defee samay recherche dama tase nag ak lu xaw a doy waar ah, sëñ Amath. loolu la. parce que euh, euh, ñaari nit yi nga xamante ne ni ñoom ñoo financé affaire bi ñaari frère la yu nekk Espagne euh, boo gugaloon léegi alors que maa ngi wax ak yow wala nit ku ñuy dégg def ko Alberto Cortina ak Alcocer Alberto la ñu sant quoi ñu leen di wax Los Albertos ci Espagne. Mm-hmm. ñoom li gën a doy ci wax ji Macky Sall recevoir na leen le 18 septembre 2014 ci affaire bi c'est sur les médias espagnols te Sénégal amul benn média bu ci bind donc boo defee rek tout de suite boo defee alors que yaa ngi wax ak man boo defee eh, Los Albertos wala nga def Alberto Cortina nga def Macky Sall wala Banque de Dakar boo ko defee ci Google di nga gis directement photo yeeg yëpp ak li ñu def yëpp ak préparation yi maanaam ah ma xam ne loolu bu fekkee am na ci biir Sénégal ba ñu recevoir fi ñooñu le 18 septembre te kenn yëgu ko te Espagne gars yi bind ci lu bëri ba website bi ma lay wax boo ci duggee ci suufu website bi espagnol yi commenté nañ ci le 18 septembre ñenn ñi di di ci wax naan pauvre noir pauvre nègre parce que ñii ay nit la ñu yoo xam ne ñoom dañ leen di topp ci ay condamnation au niveau de l'Espagne c'est d'ailleurs sur la net li gën a doy waar ñaari cousin lañu yoo xamante ne ñoom ci année soixante dix yi dañu takkoon ñaari sœur ku ñuy wax Esther ak Alicia Koplowitz ñoom ñu riche lañu en Espagne d'ailleurs seen société bi ñu am ñu koy wax benn société de construction la FCC septième société de construction en Europe la donc c'est des milliardaires ñooñu lañ ñëwoon takk leen mais biñ leen takkee ñu ngi leen takk ñoom ñaar ci ci biir diiru un an ils sont mariés par la suite y a eu des scandales sexuels ak lu nekk ñu topp leen ci ba léegi procédure yaa ngi daw c'est des gens aussi qui ont été poursuivis par euh, pour meurtre ba ñu condamné leen pour trois ans et demi ñu nekk ba léegi ni appel. non attends attends attends non non non Ibou defal naa Ibou defal naa <laughs> uh-huh. nga ne gars ñëw di liggéey ak Alioune Sall. waaw war a ubbi banque bi foofu lay jox waaw. Alberto Cortina ak Alberto Alcocer. Macky les a reçus le 18 septembre 2014. Ah, Macky recevoir Macky recevoir na leen le 18 septembre 2014. waaw mu ngi nii ma tiim ko El Confidentiel bu 18 septembre boo koy bind léegi ci Google nga jot journal bi ak photo yi. Oui. <laughs> Los Albertos saltan de las bambalinas con la creación de un nuevo banco en Sénégal septembre après ñu def en espagnol Alberto Cortina y Blas Herrero beneen waaye bu doon liggéey ArcelorMittal presentaron la pasada semana las credenciales del nuevo banco de Dakar nga ne nga ne nga la. non am na am na benn affaire ak ArcelorMittal ça veut dire que li may xalaat yaan ngi koy xalaat mais j'ai pris mes notes Dakar est présidente des Sénégal. non non non taxawal foofu parce que déggu man déggu ma expliqué déggu ma nga ne waa jooju. dafa am eh, aussi. way euh, euh, euh, kooku beneen rapport la bu bokkul ak lii dara quoi kooku man maa ko noté quoi ça n'a rien à voir mais ñoom am na ñu beneen case les frères la Los Albertos ak ArcelorMittal am nañu beneen case bu bokkul bi donc ça c'est un rapprochement que je fais spéculation la quoi réalité pour moment du dëgg réalité bi mooy j'ai en face de moi El Confidencial c'est un journal donc euh, bu le 18 septembre 2014 donc ils ont été reçus les deux frères ils ont été reçus par Macky Sall donc à propos du financement d'une nouvelle banque qui de Dakar donc voilà ils ont beaucoup écrit là-dessus si suuf nag ak photo Macky Sall d'ailleurs ñu def ko euh, nii fii donc euh, euh, photo Macky Sall après si suuf nag commentaire yi gars yi nekk ci forum bi espagnol yi lu nekk yàq nañ ko nit ñi quoi nit ñi avec tout ce qu'ils ont fait ñuy osé dem di def yu mel ni Africa donc 18 septembre ça ça n'a rien à voir maintenant le fait que maintenant soit délégué à son frère ou bien que le crédit soit là vraiment loolu moom loolu moom moom moo fi moom moo fi génn nii quoi waay ku google gis ko ah très li moom li moom li moom dafa dafa doy waar quoi et puis su ma liree article dem euh, bi quand ils ont annoncé sur Seneweb gars yi dañ ne euh, donc il est dit que la BCEAO la commission bancaire a exigé un droit de regard sur les actifs des actionnaires Mais quand une banque contrôle, la banque ne regarde pas seulement les actifs, mais regarde aussi le passif, parce que passif bi ci la ci la musiba yi nekk passif bi ci nga mën a xam xaalis bi aussi fan la jógee pour voir si c'est pas de l'argent bu gars yi di ñëw pour euh, blanchir ko laundry money xam nga donc yooyu donc ils n'ont pas regardé ça ils ont tout sur les actifs ñi ko moom ñan la est-ce que du ay enrichissement illicite Sénégal wala jaaru fi donc ils n'ont pas contrôlé seen pré seen antécédent yi donc voilà quoi. man daal <laughs> dama bëgg dama bëgg dama bëgg nga liiraalaal loolu ma. c'est-à-dire ah. que dama ci bëgg a dem nànk nànk quoi cest di que. li ma bëgg nga leer gis li may gis nii. li ma bëgg nga gis boo defee ci Google El Confidentiel wala nga def rek 18 septembre 2014 nga def banque de Dakar nga def Alberto rek Alberto rek. boo baiser tu es dans la même page que moi. waa déet lire espagnol bi kay moom a ciy jaaxal. non non non non mais boo xoolee boo xoolee environ tu vas tu vas espagnol boo duggee dugalee translate boo demee Google rek nga bind translate paragraphe boo jël rek boo dugalee rek koy def directement sinon même gars yi bu ñu duggee léegi dina am gars yoo xam ne dañuy jàng espagnol bu ñu duggee ci website bi dinañ ko kii mais vraiment xoolal eh, eh, gis nga commentaire espagnol yi donc 18 septembre ça n'a rien tout de gars yi dañ ciy wax ay kii yoo xamante ne ay mots yoo xam ne labrados labrados mooy ay woyu kay mais il a des termes ils ont xas nañ leen wax nañ leen lu nekk en ce moment là quand donc au journal il a paru que donc ñoom dañuy ñëw pour investir Sénégal ouais. waaw yu doy waar ah xoolal ñu ngi def fii delinquentes ladrones corruptos c'est grave ah te ñooñu ñoo indi seen xaalis léegi war a ubbi banque. de voilà voilà te léegi nag waxatuñu donc si vous si vous voyez la manière sincèrement le fait de ne pas porter ça à la connaissance des Sénégalais ça un parce que lui c'est des trucs qui concrets et il a d'autres sites même am na site français yu bind ci ay affaires yu nii mais bref le fait de ne pas avertir les Sénégalais le fait que ça ça se passe sur le dos des Sénégalais après bu ñu ñëwee tey jox crédit Aliou Sall on comprend pourquoi ceci n'a pas été public. C'est-à-dire, on peut, on peut ne pas pouvoir tout, sauf juger des documents que nous avons devant nous et des photos et tout. Et puis, voilà quoi. Les gens ont dit beaucoup de choses là-dessus, sur EcoBank, sur Orabank. Tu vois, hein? Et je te dis qu'il y a des jugements qui courent, même là, ils sont condamnés à, à millions d'euros. Hein? Non, non. Ouais. xam nga comme li ñu doon wax comme li gars yi di toppee Karim Wade xam nga affaire yi gars yi di def du nekk ci détournement xaalis c'est-à-dire que ay rouages yu mel nii la quoi les gens parce que ça nit ki man mun naa la jox bépp bénéfice du doute mais quand tu traites avec des gens qui sont connus comme de très grands gangs fii ci Europe bi et même les enfants bu ñu defee Google gis ko bon après après ça devient un peu ça devient un peu lamentable quoi. waaw euh, mais est-ce que est-ce que mun nga ma waxaat paragraphe boobu ñu tudd waa ji rek tudd ArcelorMittal est-ce que mën nga ma wax parce que dama dama bëgg man euh, def def sama rapprochement boobu il faut ma dem seet ko après parce que ci beneen page la nekk quoi mhm. c'est-à-dire fii nii ci page bi no ci page bi ils n'ont pas fait allusion à après man damay poursuivre samay recherche parce que dafa am beneen waay bu ma euh, bu frère Ari euh, kii Alberto yi àndaloon waa ji mi ngi tudd Herrero Blas Herrero moom tam même Blas Herrero ni may wax ak yow ni boo defee rek Blas Herrero moom tam nga def Arcelor Metal di nga gis ñoom am na sax am na ci société yoo xam ne ñoom ñëpp ñoo ci bokkandoo ay action je toujours je vais plus loin maintenant tu vois mais tout ça c' est des documents qui sont qui sur le net ah est même soo ma joxoon nii alors que maa ngi wax ak yow email benn email moi je t'envoie les les tout de suite tu vois c' est c' est c' est dafa doy waar quoi dafa doy na solo am na solo am na solo am solo kon kon mbokk yi ñoo ko déggandoo je Euh, bu fekkee yéen it am ngeen ci bien sur que xëy na dem ngeen Google ah euh, xool information yi par rapport ak euh, c'est une suite de ce que li ñu doon waxtaanee démb mooy investissement boobu nga xam ne ni def nañ ko ci Banque de Dakar alors mu nekk deux frères spanish waa espagnol right from Espagne waaw ah ñu ngi leen di tuddee Espagne Los Albertos mhm. donc Alberto la ñu sant quoi Alberto la ñu sant quoi foofu ci Espagne donc euh, te Macky Sall recevoir na le 14 septembre 2014. non non 18. 18 septembre 2014 18 septembre 2014 ils ont été reçus. 18 par le président Macky Sall donc euh, voilà quoi xam naa certainement par l'entremise euh, du frère du président certainement qui aujourd'hui se retrouve être bon lu ñu lu nag mooy. Mm-hmm. le frère du président qu'est-ce qu'il est dans la nouvelle banque. est-il ah actionnaire était administrateur était euh, am na yu bëri yoo question yu bëri yoo xam ne euh, xam naa du ñàkk ni gars yi dinañ l'enquête euh, te indi ci tontu. waaw mais nag foofu amaat man dinaa poser benn question parce que ci document yi may gis nii ah li nga xam ne moom moo génn Espagne le président il s'est présenté comme le président du Sénégal parce que gars yi lu ñuy traité fii lu ñuy wax donc c'est entre Sénégal ak Espagne ce que entre deux pays quand ils nomment les pays. Donc c'est entre deux pays. Mais ya y a Aliou Sall, il n'a rien à voir dans les affaires de l'État où nos États traitent euh, des affaires bancaires. C'est un maire d'une circonscription quelconque. Et puis, mon hein, DRFI, son nom ne vient pas là-dessus parce qu'il n'a rien à voir là-dedans. Là mais compte tenu que ñii ay wayu lañ nit yi nga xamante ne ñoom la ñuy wax ni ça c'est de c'est de grand chemin mais ñoom bu fekkee li la ñuy def mais après lu nekk am na ci ah, après après njort bu nekk mun na ci am ah, parce que ça ça passe pas sur les règles euh, de déontologie financière quoi hmm, dafa doy waar ah man ce que je vois nii man def ma découragé sa waay daf ma découragé ah, euh, trop gravement waaye. te donc léegi euh, voilà. <coughs> jégalu même man hmm. am naa fi benn kii en anglais ah. am naa fi benn kii en anglais boo xamante ne ñu ngi ko tuddee down but not out foofu même ci anglais bi ah def nañ fa benn article sur Cortina ñoom ñooñu fu ñu leen jàppe woon quoi cooy foo xam ne juge bi lépp en anglais lañ ko bindu quoi fu neen leen jàppale depuis deux mille xam nga mm-hmm. donc c'est des gens yoo xamante ne ak li ñu leen jàpp waay waay waay waay kon daal euh, dañ ñuy indi benn benn benn mafiosi espagnol foofu quoi ci dëkk mais c'est concret ah ay spéculation sinon je parle pas comme comme ça à la télé non non non non non non bien sûr bien sûr sama fonction sax sama fonction sax du mais c'est vraiment sérieux moi je dis sincèrement si mhm. j'avais un client fii mhm. ah moi j'ai fait des contrôles pendant au moins ans au niveau au niveau du gouvernement néerlandais. Donc, ça y est que je suis aux Pays-Bas, je ne vais pas m'hasarder au niveau des finances à dire des choses. Mais lui, le plus petit des clients de l'État, si je vois des trucs comme ça, mais ça va, ça va, ça y est, c'est des gens, ils sont, ils sont bien pour au moins 10 ans. Tu vois, je te dis, ben citoyen Bunda ou maintenant il y en a affaire demain. Non, attends, c'est grave. C'est grave. Hmm. Okay. Et puis, et puis, comme je l'ai dit, quand des gens comme ça dama dañu dem deux cousins ñoom ñoo dem takk Esther ak Alicia Koplovitch ñoom ay sœurs yu gën a riche riche riche riche riche Espagne lañu quoi ñoom seen parents ñu ngi jóge woon entre Pologne ak Allemagne ci guerre bi quoi. Mm-hmm. mais dañ ko prémédité dem takk leen après tas leen parce que dañ leen bett ñoom ñaar ñëpp aussi dans la même semaine ñu nekk ak yeneen mannequin ak yeneen fii de de de de mœurs légères quoi tu donc euh, loolu moom dafa doy waar ah. doy bu ngeen seetee aussi pour ñuy déglu bu am na benn site bu tudd bolsamania point com bolsamania foofu tam boo fa duggee rek boo seetee tur yooyu rek Alberto Cortina nga boole ko banque de Dakar jeex na après di nga gis euh, photo yi renseignement yi ak président bi li ñu am yëpp quoi. am na solo loolu am na solo kon. Euh, Euh, dinañ jàpp ci thème yooyu benn ci thème yi ah. Euh, lu lu lu lu am solo la mu nekk une suite de euh, li ñu doon waxtaanee démb mbokk yi ah di leen xaarandi toujours ci 347 380 69 09 347 380 69 09 dafa am ci lu ma bëggoon a commencer tout juste balaa ñuy entamer waxtaan bi ah discussion yi mooy c'était juste une. Euh, genre félicitation au peuple du Nigeria euh, qui vient d'accomplir moom it pour la première fois benn alternance par les urnes ah pour la première fois un président du Nigérien ñu gagné ko par les urnes donc euh, c'est quelque chose d'historique alors en tant qu'Africain aussi il fallait que ñu souligne ko euh, pour montrer li nga xamee ni c'est un vent vraiment qui commence à souffler sur l'Afrique et qui est un vent d'espoir quand même bu mm-hmm. fekkee ni ce ne sont pas euh, les Sénégalais qui vont aux urnes pour euh, en 2000 et en 2012 euh, une benn euh, alternance bu fekkee c'est pas euh, les Tunisiens ah avec le printemps arabe après les Tunisiens les les Égyptiens ak lu mu jël mi ngi wane ni cette nouvelle génération de d'Africains mi ngi génn petit à petit Euh, ci loo xam ne nii moo doon benn gëm-gëm boo benn fatalisme boo xam ne nii on laissait nos destins entre les mais euh, de quelques politiciens et ils faisaient tout ce qu'ils ñu doon ñu ci doon def lu ñu bëgg alors bu ñu xoolee tey nii nga xamee ni vraiment euh, résultat wu Nigéria yi ah man maa koy suivre depuis dimanche euh, vraiment bu ñu la doon wan les images à la télé di la wan patience yu Nigéria yi àndaloon pour voter dafa lay saa dafa doon woon benn détermination ils ont passé des heures des heures et des heures ci benn ligne am na ñoo xam ne dimanche la ñuy dem lundi lañ voté astafurla samedi lañ dem mais dimanche ba la ñu voté c'était presque extraordinaire tellement que ñu ngi ànd ak benn patience mais surtout euh, détermination boo xam ne ni alors loolu signe la un signe avant coureur buy wane ni. Euh, am na benn génération buy ñëw euh, boo xamee ni commencé na ci ci sunu génération bii nga xam ne euh, depuis euh, deux mille avec le Sénégal Burkina Faso gis nañu ko ren avec beaucoup d'autres pays yoo xam ne vraiment gars ñu ngi commencé nag togg togg xam nga même au Sénégal aussi am na ay dañ toogoon rek quoi ne lu gars def rek baax na lu gars def rek baax na et je crois que loolu aussi gars yi ñu ngi ciy génn nànk-nànk ñu ngi commencé di comprendre commencé di mesurer euh, ampleur bi nga xamee ni ñoom seen vote am na ko parce que tey boo xoolee les résultat vraiment des élections au Nigéria euh, presque benn raz de la presque raz mare marée la quoi la la la la euh, waa ji def comment il s'appelle encore euh, bon voilà ça ça m'échappe Euh, même bu fekkee ni il a eu euh, à deux reprises euh, à faire des coups d'État dans le passé ah Buhari mais je crois que cette fois si lii dafay wane ni démocratie rek moo wuur ndax à deux reprises il a fait des coups d'État donc yàggu fa sa régime moom n'était pas aimé n'était pas prisé cette fois-ci mu jaar ci li nga xam ne moom mooy démocratie bi on verra ce que ça va alors bëggoon naa rek tuuti lool donc foofu laa buggoon na Euh, commencé woon pour féliciter euh, waa Nigéria euh, may leen amin aussi wax tuuti li nga xam ne moom mooy espoir bi nga xam ni judd di mi ngi mun naa juddu ci façon bi nga xam ni léegi alors cette cette nouvelle génération laa ñu ngi koy am par rapport ak ni ñi ni ñi ni ñi ni ni ñuy gere seen dëkk yi. alors euh, Ibou est-ce que am nga euh, euh, benn jàngat boo def par rapport aux élections du Nigéria avec la victoire de Buhari waaw sincèrement nag pas pas tellement nag quoi sincèrement nag dëgg dëgg rek ne gis naa rek ne kii na quoi mais tey moom xooluma dara dara démb aussi pas quoi maa ngi hmm. nekkoon plus ci affaire bi quoi voilà mais voilà. pense que c'est du positif. transition yi am na c'est du c'est du la sous-région. c'est la c'est la première fois que ñoom ñuy euh, bon yàgg nañu am ay élections mais parti au pouvoir toujours moo doon gagné chaque fois bu gagné après moo am ay coup d'état bon benn part mais pour la première fois moo am benn euh, benn alternance xam nga un président démocratiquement élu beneen président ñëw gagné ko donc c'est pour la première fois que mu am foofu au Nigeria. alors ce qui montre toute l'importance euh, de ces élections mais au-delà du Nigeria c'est un espoir ah. quand même qui naît pour le continent africain oh. euh, yaakaar naa ni ça ça va continuer comme ça avec dans d'autres pays hein, comme le hmm. Togo comme le comme comme le Congo les deux Congos ouais. Congo Brazza Congo Kinshasa alors comme le Burundi comme le Rwanda alors yooyu yëpp dañuy ñaan. Hmm. xam nga cette vague démocratique la àgg fa xam nga donc. Euh, dina ñëw voilà dina ñëw nànk-nànk rek yàkkamti moo baaxul. alors mais dina ñëw c'était une parenthèse. alors kon euh, euh, voilà la banque de Alioune Sall dégg ngeen information yi ñu sunu mbokk mi Ibou Ngom jox mu nekk yu am solo loolu bokk na ci li nga xam ne xëy na. Euh, boo leen ñëwee dinañ ci waxtaan alors si vous avez aussi d'autres sujets à nous proposer alors euh, ñu ngi leen di déglu ah dina am dina am solo euh, ñu ànd tey parce que comme ni mu leen ko waxee rek man tey moom ci ay ay xë xër laa duggee ci kër gi alors pour pouvoir euh, commencer à temps malgré que nii euh, j'ai eu quinze minutes de retard ah pourtant Dieu sait que Dieu sait que c'est je sais que donc xam naa moo tax euh, ma ne woon nekk xëy na gars yi dinañ ñu baaxee li nga xam ni moom mooy ay euh, thèmes alors euh, je croyais que Azou mon ami Azou doon na jéngo tuuti sax indil ñu benn tey mais moom defe naa man ak moom ñoo yem alors Azou depuis Canada maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax Barthélemy Diaz l'acte 3 il doit impérativement retourner à l'Assemblée nationale ah foofu ngeen toll loolu wax gars yi waxee yàgg na trop trop trop trop trop trop de la décentralisation defe naa moom jaratu jaratul muy retourner à à à l'Assemblée nationale. ndax li am am na. ci instruments yi la bokk. ah. ma ci instruments yi la bokk de la décentralisation moom. wala kon l'acte trois de la décentralisation moom mooy loolu. parce que beneen ci conséquence su acte trois bi. Hmm. mooy gouverneurs yi les gouverneurs son sorti la dégg nga leen. quel gouverneur. non les gouverneurs des région am na ci ay ay régions yu taxaw ne nañu ñoom gars yi kiiwatuñu leen normalement et puis par exemple daf ci am benn ci gouverneur yi mu joxe exemple ne xaw ma dafa amoon cambriolage ci maireem amatul woon sax crédit pour woo <laughs> pour woo gars yi parce que léegi dañuy limité téléphone yi xaw ma naka lañ ko tuddee encore geste xaw ma naka. donc des trucs de ce genre quoi ne yëpp nag kii wu acte trois bi la quoi ça y est sur Seneweb je pense sur Seneweb wala sur euh, Dakaractu xam nga le malheur mooy. Hmm. moom mii di wax nii tey. à un hmm. moment donné dafa yaakaaroon ne acte trois bi leen di arrangé moom Barthélemy. donc donc donc au début. il est allé même jusqu'à contrer Euh, Khalifa Sall ci acte 3 bi lorsque Khalifa Sall disait que ni acte 3 bi euh, dañ ko def juste pour contrer une personne. donc même moom Barthélémy Dias mi il était pour cet acte 3 parce que on les a fait miroiter que ni au di ngeen am ay ay doole yu gën a bari. en fin de compte ils se sont rendu compte que ni ndekete dañ leen doon amin dañ leen doon nax rek ba euh, voté na loolu lañ ko ñu voté ko xam nga euh, légitimer ko parce que aussi euh, les députés du parti socialiste àndoon ci comme moom mais aujourd'hui il uh-huh. regrette vraiment d'avoir d'avoir supporté cet acte trois la décentralisation là et te te te dafa mel ni béy wéy na mbuus waaw effet aversi la quoi affaire bi dafa jutu quoi voilà affaire bi dafa juutu quoi wa malheureusement ma ne ko ma ne ko bay wéy na mbuus alors il va falloir que mu ba cinq ans yi jeex et puis euh, voilà si les réélus boobu. mu xool naka lay euh, naka la koy lijjantiwaate. waaw euh, mais li nga wax na tu sais Amath ça nous renvoie à ce que tu disais hier. oui oui. cest dire les par compagnonnage. du ñu xool les principes très bien donc kii laa àndal. Mm-hmm. comme que mi ngi kii loi bi man waruma joxe sax sama argument même su fekkee bato bi dafay suux. parfaitement man kii laa àndal. Mm. léegi boo demee ba ci biir gis ne moom nga àndal mais que yow loolu nga ko doon bàyyi mu def ko même yow baaxul ci yow dafa lay gaañ en fin de compte ce qu'on dit les Africains nous sommes nos propres ennemis mmh. c'est-à-dire que ñun li ñuy gaañ ñi ñoo ko fi teg kenn tegu ko fi quoi mm. kay en commençant si ceux qui nous représente maanaam mmh. eux ne veillent pas à vraiment à, à cette portée de volonté général de la loi Mm. maanaam damay jël beneen exemple comme nit ñu fi jox temps yi ñuy jugé lu bëri ci affaire par exemple CREI je donne toujours euh, toujours un exemple ah. boo xoolee CREI bi tey bu ñu ko doon expliquer nit mooy maanaam nga am ñaari nattukaay yow nga ñëw di jënd diwlin ci man ma am ñaari ma am benn nattukaay boo xam ne dañ ci def numéro yi xam lan mooy dix centilitres la mooy cinquante centilitres la mooy cent litres boobu su ko utiliser su ma lay nattal di nga ko xam ma bàyyi ko fa. jël benn boo xam ne chiffres yi ñuy natte dafa deñ mooy CREI parce que ñun am nañ benn arsenal boo xam ne complet na léegi su ma jëlee boobu di natt xam nga soo ko joxee juge bi gën a baax ki nga xam ne moom nga gën a wóolu ci quartier bi bu jëlee boobu même bu la nattalee il a été honnête mais ak li mu la nattalee nul ne pourrait dire précisément que li mu la nattal mat na loolu moo waral exemple boobu moo waral bi nga xamante ne ñoom Karim Wade par exemple génn nañu benn ci dossier yooyu Mm. yóbbu ko ci nattukaay bi nga xamante ne dañ ko fi jot a réfléchir teg ko fi muy correctionnel bi daf ko dal di gra euh, gracier directement parce que suñ ko jaaree ci yoonu droit commun soo attaqué nit ki dina répondre ci loolu alors que ki par exemple créé benn bi c'est pas possible ça veut dire que donc autant le juge il peut être honnête et bien def bien travail parce que ak instrument bi ñu ko jox loolu rek la mën a def ak instrument bi ñu ko jox waa ji du am euh, deuxième ressort donc euh, deuxième ressort te deuxième ressort mooy nit mun a juum juge mun a juum bu juumee beneen juge bu nekk ci même dimension ak moom lañ koy jox mooy deuxième ressort bu ñaar ñor ñëpp pare ñu ne déedéet ba tey ñaari nit mën nañ juum ñu jël cour suprême tu donc même ci yi nga xam ne sax dañuy am preuve voilà ce qu'on maintenant si on retourne ça ñoom affaire boo xamante ne ni non seulement da ngay retourner charge preuve c'est bon mën nañu wax mais nga retourner ko ba pare te joxuloo nit ki chance mu am deuxième ressort tu vois c'est un peu contradictoire je trouve. te loolu mooy loolu ci xaw a doy waar. tu vois c'est c'est le même truc que l'acte 3 de la. de la décentralisation. ouais dommage. écoute c'est dommage mais bon. Ouais. Euh, on va faire avec parce que comme que commencé nañu ko foog ñu àggale ko anyway alors fu mu toll nii defe naa il il est trop tard dellu ci ginnaaw. actuellement je crois que il il il est trop tard ci ginnaaw àggali ko rek moo fi sës. oui oui ko kii rek non mais on a de très grands techniciens au Sénégal bu nit ñi doon waxtaan euh, seen Amath Diop bu waxtaan foofu moi je pense que le Sénégal a tellement d'architectes juridique des Sénégalais yoo xam ne non mais des des des milliers gens voire même en Europe fii ci biir États-Unis mais il y a des gens c'est des gens qui sont au, plan international qui servent le monde loo xamante ne ni 1 pour cent bi ñu ko defoon tey euh, pour Sénégal mais c'est des gens qui en fin de compte se désintéressent désistent de cette politique parce que ñoom euh, ñu ngi ci beneen level quoi. mu nekk lu doy waar yéen a ngi suivre seen émission penc mi sa xalaat euh, comme euh, tous les soirs euh, ñuy ànd ak yéen alors balaa ñuy continuer ah di leen wax rek ni voilà tey le 31 mars donc comme chaque année bu mois de mars jotee mois d' avril alors dañuy organiser li nga xam ne moom mooy benn période boo xam ne dañ koy jël def ko benn période de fundraising wala collecte de fonds. alors euh, pour la rajo alors chaque année euh, dañ koy def alors dañ koy euh, je crois que y a deux semaines sax trois taala joxaane mi ñu ko doon laaj ñu ne ko dañ ci ñëw ci mois d'avril bi alors on va prendre une semaine hein, la première semaine du mois d'avril du premier hein, euh, au 8 avril incha allah pour def li nga xam ne nag moom mooy sunu annuel fundraising wala ñu tuddee ko collecte de fonds annuel nga xam ne ni ci ngeen di faral mbokk yi di jàppale li nga xam ne moom mooy rajo bi euh, incha allah bon ñu ngi doon wut euh, yenn matériel yu gën a performant ah, xëy na chaque année ñu wut ko yàlla di ñuy jàppale euh, chaque année ñu def ko mu am lu ñu ci yàlla di baaxe alors ren aussi ñu fas yéene delloo mbuum ca mboy mboy ga alors je crois que bu fekkee ni. Euh, am ngeen page Facebook je crois ah ci Facebook bi surtout euh, wala ngeen am email ñu mun leen ko yónnee ah benn page la ah bu tudd GoFundMe GoFundMe nga xam ne pratiquement léegi ñëpp moom la ñuy utiliser pour def des collecte de foo alors ci GoFundMe ngeen di dem rek alors ngeen def fa seen donation alors boo leen boo leen dugalee boo leen bësee presse bouton bi ah. mu yóbbu leen ci page bi nga xam ne ni euh, moom ngeen di soxla pour dugal seen information alors bu euh, mettez la som que vous voulez ah bu pouvez mais vous pouvez le faire anonymement comme seen tour ça dépend de vous alors euh, ngeen def somme bi ngeen bëgg alors xool nañu daal ne bon dañuy dañuy ren dañuy jéem a wóolu sunu bopp ne alors on va def benn benn targetu cinq mille dollars ah targetu cinq mille Euh, xool naka la nit ñi di réagir par rapport ak euh, cet objectif là est-ce que danañ ko mun a atteindre ou pas yàlla rek a xam ndax euh, mën nañu am solo góob comme mën nañu bañ a mën nañu ko bañ a am aussi mais yéene bi gars yi vraiment xam nga jàpp ci rek xëy na mun na nekk mun na bañ a ne mi ngi noonu daal alors dañuy baaxantal rek at bu ne ñu def ko fekk defoon nañ ko daaw fekkee déwén kon aussi ren nañ koy def pour mun a fekkee déwén. alors euh, defoon nañ ko daaw fekkee ren dañuy jéem a def ren it pour fekkee déwén alors euh, moo waral xam nga aussi euh, mun na renouveler matériel yi nga xam ne moom la ñuy liggéey tout ça gën a am yu yu am yu gën a performant kon boog la message est lancé ah ku ci bëgg information yu gën a jàppandi bu fekkee ni amoo page Facebook pour dem sama page man c'est simple da nga may jox sa email ma yónnee la li nga xam ne moom mooy mii bi alors tu pourras l'avoir Euh, si sa email alors donc ci biir semaine bi saa yu ngeen euh, jekkoo te yéene ñu ko rek incha allah ngeen jaarale ko foofu donc c'était l'information euh, à passer dinañ ci dellusiwaat fii ak la fin de l'émission alors aussi mbokk yi nga xam ne ñu ngi nekk ci Texas yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp alors ñu ngi leen di xamal ni li nga xam ne ni moom mooy vraiment week-end bi nga xam ne l'association des Sénégal de son fas na ko Euh, def célébration bu am solo ah les 4 et 5 le avril mu def benn soirée sénégalaise soirée sénégalaise boo xam ne tubaarkalla euh, ñu ngi ci xaar mbokku Sénégal yi xaar ci mbokku Gambie yi xaar ci yeneen suñu mbokku yeneen xeet yi mais Sénégal yëpp yu nekk euh, Houston yu nekk Dallas San Antonio Austin fu ñu mën a ne ci biir Texas ñu ngi leen di xaar le lendemain aussi bu ñu noppaloo ba le lendemain ñu yeewu jug. alors dem ci li nga xam ne nag moom mooy euh, barbecue pique-nique bi ah à partir de midi euh, ñu commencé xale yi ñëw ñu dajale leen am na ay activité pour xale mais aussi mag ñi tournoi de football baa ngi fa war na am na tournoi de football war na am aussi tournoi de basket pour ñi nga xam ne dañuy pratiquer basket alors donc voilà ñii ñu ngi football ñii ñu ngi basket xale yaa ngi def seeni i seen i po alors mu nekk lu am solo loo xam ne dañuy dajale li nga xam ne mooy communauté bi alors chaque année ñu koy daal di def ren nag ñu fas koo yéene def ci suñu indépendance euh, ndax balaa ngaa euh, laax jaay da ngay laax lekk balaa chaque année ñu def ko ci julaay foofu di indépendance Amérique mais aussi célébrer indépendance Amérique ba ñu célébrer suñu bos tamit defe naa loolu xeeb sa bopp la moo tax ñu ne désormais léegi euh, Séné indépendance Sénégal dañ koy daal di célébrer comme tout le monde bu fekkee nii alors bi yoon dafa dafa tombé week-end mais quel que soit alpha jëm daal ba. Euh, fexe di ko euh, organiser chaque année kon bokk programme baa ngi noonu le 4 incha allah dana am soirée dansante bu am solo le 5 yandu la pique-nique euh, lépp ci fii lay xewee kon na ngeen ko def seen i agenda adresse yeeg yooyu moom danañ leen ko wax le soirée dansante moom lu yomb la 20 dollars rek pour kuy dugg alors mooy participation bi kon bokk na ci ñëpp jàpp ñëpp ñëw alors ñi nekk Houston ñu nekk ci yeneen état yëpp. ñu ngi leen ci invité alors le onze moom mu nekk journée xasida alors euh, te état yëpp di ñëw daje yu son vraiment état yëpp di ñëw daje yu son euh, pour euh, journée xasida yi incha allah ren yu son moo aaye alors le douze bu jigéen nag ñun ñëpp ñu ànd dem Dallas dem ci conférence ba foofu ca Dallas conférence bu am solo nga xam ne soxna kii moo koy animé waaye nu tuddati ndaw si ci TFM voilà. waaw moo koy animé donc euh, waa Dallas di ko organisé loolu Fatou Bintou le dix le douze lay nekk incha allah ci kàttan borom bi kon bokk message yaa ngi noonu en nañ ci ñëwaat tuuti ci karam alors ñu ñëwaat euh, Ibou dafa mel ni tey gars yi bugguñu waxtaan bi de nee na. nee na waaw ah. waaw dafa dégg ko ma gars yi de. <laughs> yi gars mel na ni tey daal amuñu amuñu amuñu amuñu feeling waxtaan daal. Ah, de tey tey tey amuñu fi li ngi waxtaan parce que laaj naa leen ñu ñu proposé ñu thème proposer wu ñu thème ñu ñu dellu si waat ci euh, les deux cent amina ci ouverture compte euh, banque bi nga xam ne ni euh, Abou Alioune sàll bi ah. nee nañ tel daal fu mu toll fu le pour le moment xam naa dañuy xaar ku tudd Ablaye Wade ak Karim Wade pour ñu soog a soog a jóg mais aussi à un moment à un aussi dañuy sonn ci Karim Wade ak Ablaye Wade nag wax dëgg neex yàlla dëgg la dëgg la parce que entre temps aussi il y a des choses qui sont très sérieuses parce que xam nga avec tout ce qu'on nous a servi ces derniers temps euh, bu ñu jékki-jékkee rek ñun jógeeguñ ci Karim ba mu jeex après affaire bi ñëw je pense que ça ça mérite réflexion parce que entre li ñu ne weesu na ba pare ak li nga ne li ñu ne si la ñu nekk je pense que li ñu nekk mën nañ ci dara la ñu gën a mun dara que li nga xamante ne nii on l'a plus en main quoi ah bu fekkente ne vraiment c'est une banque boo xamante c'est de la place mu am fu mu jaar dans les discussions préalables yi après mu dellu pour qu'on cite vraiment ce nom-là après tout ce qui s'est passé ak Petrotim donc euh, bu ma gisee aussi des traces d'Arcelor xam nga après dafay dafay dafay xaw a jaxasoo te yooyu yëpp ñaari dossiers yooyu yëpp amul benn boo xam ne ça a été porté au public wala nga gis benn trace ci dëkk bi non rien du tout aucun journal de la presse n'a fait allusion à cette rencontre ni à des travaux préparatifs alors que euh, dans les journaux espagnols euh, mi ngi fees del te ñële duñu président ay woyu rek lañu seen dëkk ah, attention ay woyu rek lañu seen dëkk mais au moins ça a eu droit de presse d'être lu ni ñi xam ne ok ces gens là yi nga xamante ne fii ils sont poursuivis par la justice de l'autre côté au Sénégal ils sont en train de faire les affaires avec les gens là ah ñun ñu ne buñu ko ba tey on nous sert un gâteau encore comme quoi voilà le frère du président a bien fait et beneen question bi mooy mhm. posé woon naa ko benn jour maintenant s'il y a beaucoup de choses qui se font comme ça en dessous des tables et qui plus tard engagent une grande partie non seulement mais des instances bancaires c'est très grave et puis des gens comme ça mais ñooñu ñooñu ñooñu ay mani laundry rek la ñuy def ci àdduna bi Il ne faut pas ouvrir la porte à ces gens-là, c'est difficile. Et on n'est plus un point de spéculation, mais c'est des choses qui sont, qui sont, qui sont très concrètes. Hein. C'est des choses qui sont très concrètes. Dama loolu rek moo ma ci métti waay waaw li moom dafa waaw doy na waar euh, mais dama euh, kii moom nee na lu muy laaj amaat nee na diggante les transhumants ak ñi leen di accueillir Mm-hmm. ñan ñoo ñan ñoo gën a fautif par rapport à cette situation de transhumance ah d'accord je vois c'est-à-dire que euh, il veut parler des transhumants parce que gis nañu mm-hmm. ni euh, je crois ci démb xaw ma ci démb. on mm-hmm. nous a fait état de Bekay Diop. qui est bu dem bokk ADR APR Yaakaar ah l'ancien. Euh, ministre de la défense. jugee na bokk gis-gis bu Pape Diop dem na dellu dem na APR alors euh, en plus de Innocence Tap Ndiaye euh, je crois y avait une autre personne am na je crois tey ci fajar gi ci fajar gi je crois avoir lu avoir lu quelque part ah non j'ai lu quelque part euh, benn article traitant de la transhumance de la transhumance mu nekk loo xam ne ni euh, li gën a li gën a li gën a salte sunu suñu politique mbirum mm-hmm. transhumance bokk na ci li gën a salte suñu politique mbirum transhumance bokk na ci alors les gens essaient de comprendre qu'est-ce qui les gens vraiment euh, waaw euh... mu ngi nii c'est sur l'enquête l'enquête qui biir vague de ralliement à la l'APR la saison des la saison des transhumants voilà waaw voilà Sitor Ndour Sitor Ndour nduur Ndour hmm. euh, nga xam ne nii il était à l'APR au début ba Macky Sall di jógee PDS hmm. après bon euh, Ablaye Wade fexe ba négocier ak moom mu dellu soir mu jox ko coude donc hmm. il est retourné au PDS donc euh, Macky fallu je crois tëj nañ ko fi sax kaso waaw Macky tëj na ko fi sax kaso léegi génn na dégg naa keroog muy wax nii il va travailler exclusivement pour la réélection de euh, Macky Sall en 2017. waaw voilà surtout Ndour euh, dellu na Bekay Diop ñëw na. Mhm. Euh, bon Awa Ndiaye moom jàgg na Innocence Ntap Ndiaye. voilà mu ngi ni la grande offensive des responsables à Paris alors xam nga man quand je vois le dossier des transhumants. Mhm. je me demande est-ce que. nos politiciens sont intelligents. Mmh. bonne question parce que xam nga olof day wax ni. ku muus ren daaw la ñu nax mm-hmm. xam nga quand des faits se produisent. Mm-hmm. nit ñi dañ cee war a jàng. Mm-hmm. Euh, Abdou Diouf a tout fait avec le PDS pour déstabiliser le PDS. jël seen yenn kàngam yi. ça n'a pas empêché en 2000 lorsque la population en a marre quel soit ah, lu mu leen diggoon aussi il n'en voulaient plus. ils se sont départis de Abdou Diouf. mais xanaa Macky Sall 2012 soriwul sori boobu. Ablaye Wade avec tout l'argent qu'il a eu ak ñi mu jéem a débouché dans tous les partis nag parce que moom mmh. déjà il voulait le PS il voulait tuer tous les autres partis ñoom ànd jëf ak ñoom LD c'est-à-dire ñëpp fexe na ba mu am ñu mu jël ci ci ñoom mmh. parti sa Seck ba ci ay ñoom euh, Awa Gueye Kébé à la dernière mmh. minute mu récupéré ay Awa kebe xam nga euh, dem APR am ñu mu fa ñu ñu mu fa déniché mais ça ne l'a pas maintenu au pouvoir. Ouais, ouais. Mais ça ne l'a pas maintenu au pouvoir. Alors moi, je me... c'est-à-dire que à chaque fois que j'entends ñu ne dem nañ jëli un responsable ma ne mais est-ce que ñoom dañoo jàpp di ces responsables là à chaque fois mun nañ leen indil toute la population de gox bi ñu dëkk et pourtant mm. les élections ont prouvé que c'est pas vrai la preuve. à chaque fois que mu am changement au niveau de tête de l'État xoolal les maires les députés tout change. la. tout change alors mais est-ce que est-ce qu'ils sont intelligents la la je sais pas ndax ñoom ñi leen di accepter est-ce qu'ils sont intelligents ndax ñii tamit di dem est-ce qu'ils sont intelligents mais maintenant la le problème mooy à mmh. qui la faute à qui incombe la faute de ces transhumants. waaw ah, mais nag eh, Amath dafa am dafa da da ngay relever foofu ñaar ba ñetti question ah moom mooy d'abord xam nga xam nga nit nit sous toutes ses formes dafa am nit ñoo xamante ne nii eh, dañu gore am ñu goree di transhumance boo ko xoolee depuis ci moo bi. maanaam ci bàyyi ma lañ ko daan def nga xamante ne nii dañuy topp rek ñax mi fu mu gën a verte gën fa abondante rek ñu taxaw foofu lekk fa en fait loolu mooy transhumance mais di nga gis ci gétt yi gétt yoo xamante ne nii dina am xeetu mala yoo xamante ne du ñu génn mukk seen gétt lu leen fay fekk fala leen di fekk ko donc ngor yàlla def ko def ci lépp mais ensuite nga wax lu am solo eh, gars yi lu ñu mën tiire tirer tirer ay tête de parti et vraiment dans les rouages nu muy demee mooy que gars yi bu ñuy ñëw de leen di indil des milliers de de copies et carte d'identité ne leen boo ñi ñëpp ci man la ñu topp et cetera donc euh, ay naa leen xëcc mais gis nga isoloir amul sax benn président ba mun a wax a cent pour cent ne jabaram moom la voté isoloir parce que gis nga nit ñi bu ñu la xasee ba bañ wala ñu gis lu bon la ngay def boo leen joxee xaalis wala nga xëcc leen par xaalis ils vont prendre mais bu ñu duggee ci biir isoloir bi sénégalais bu nekk xam na te côté boobu je pense que sénégalais yi sénégalais yi dofatuñ ci quoi kooku dafa nekk benn affaire maintenant pour les yeux des gens pour benn massification pour benn populisme les gens vont montrer à tout le monde que man man la ñu àndal loolu mooy mun a indi yenn président yi di labaj élection yi après parce qu'ils voient que bon dañuy jël benn populisme bi ba au dernier moment ils sentent qu'ils vont perdre Euh, ñu jaxase euh, jeu bi tu vois donc dafa doy waar trop maintenant les autres fous mooy ñi nga xamante ne nii bon dafa mel ni kii sàcc rek quoi amaat kii bàyyi ba nit ki tëdd nga ñëw tëb këram mais noonu la nit ki nga xamante ne nii mooy ñëw di corrompre wala muy ñëw ñu koy corrompre mais ci même xeetu nit bi la amaat wallahi c'est des gens yoo xam ne ils sont pas soucieux de la chose publique nii de l'avenir de leurs petits enfants wala keneen quoi non te nit ki gis na ci transhumance bi ñuy wax parce que amaat tey yow mun nga nekk euh, socialiste ma nekk socialiste mais bokkuñu parti ñu jékki-jékki ci biir idéologie politique ma ñëw rallier sa parti wala nga rallier sam parti kooku ñu ngi toujours si biir idéologie bi comme beneen libéral bu demoon sax ci beneen libéral mun nañ ko comprendre mais ay nit yoo xamante ne dañuy yàkkante lu ñaaw dañuy waxante lu ñaaw après les gens se retrouvent en fin de compte yow doo gëm kenn doo xam sax d'ailleurs. Euh, non mais un un un lan la mën a indil Macky Sall un Bécaye Diop qu'est-ce qui peut amener pour Macky Sall lan. mais na amaat léegi nag bi mun nga mun nga wax Souleymane Ndéné Ndiaye su et cetera donc c'est pratiquement c'est pas les gens yi nga xamante ne nii mas nañ mun nga ma wax turam ah relier ko boo xam ne Sénégalais yi fàttaliwuñu ko y a yoo xam ne buñ la waxee seen tur rek. même bu régime bi baax woon si di nga ah, kii de ministre bu crédible la kii ku baax la woon kii ku intègre la woon tu vois mais nit yi nga may wax yëpp pour nga génne tey intégrité am day metti donc mun naa la wax ne un transhumant mais y a des gens ay Djibo Ka mun nañ ko wax comme même Niass mais y a des gens qui ont euh, euh, euh, participé à tous les régimes politiques du Sénégal mais Amath tu penses que c'est normal y a des Sénégalais qui sont mais mais mais non mais mais ah. mais ñooñu au moins ils pas transhumé Djibo Ka n'a jamais transhumé. non c'est kan Djibo Ka. Ah non c'est-à-dire. xam nga Djibo Ka a toujours gardé son parti. moom il di dit carrément nee na du mus a seeyal ci benn parti il a dit dire que moom da ngay ñëw il avec yow d'égal à égal xam nga man li tax Djibo Ka neex ma ci l'un des politiciens yoo xam ne nii. quel que lu ñu ko waxal. man au moins neex na parce que il a toujours gardé sa dignité Djibo Ka bu Abdou juf di wax wala Moustapha Niasse wala Abdoulaye Wade nee na daf leen di regard d'égal à d'égal à égal chef de parti bu wax ak chef de parti bu fekkee parti moo ah moom fu gën a muuse et ça c'est l'école socialiste mais justement ñoom leen gën a école socialiste xam nga école socialiste dañu former des leen gën a muuse Sa transhumance, il ne fait pas dans les partis, il ne il ne il est fait dans les régimes il est fait dans les régimes moom tamit dafa am lobby boppam xam nga jiba ko depuis temps ñoom Doudou Sow ah ministre la santé ñoom dañu amoon seen benn lobby lobby boobu ak ku mun a gouverner Sénégal cest à ñoom dañu am seen part ci biir lu il partage pas parce que boo boo defee transhumance ci parti daanaka mënatoo def dara pour sa dëkk parce que bon benn mandat wala ñaar. après nga ñëwaat jéem a taxale xool et pratiquement c' est des gens yoo xam ne euh, euh, euh, ñoom ñooy deux types politique bi quoi ils ont les mains sales c' est des gens qui ont pratiquement les mains sales amuñu dara lu ñuy signifier ci politique quoi xam nga amaat li yëpp li koy indi laal la je pense gis nga bu njëkk ba boo seetloo boo nekkee dirigeant gré bu mag a mag ay école affaire yooyu wala nga nekk ci syndicat yi comme ñoom Madio Diop ni ñu daan def wala comme ñoom El Hadj Diouf di diriger grève étudiants yi wala ci biir Sud-Est wala fanaan après nit yooyu tellement ils ont l'habitude de défendre l'intérêt général moom la Abdoulaye Wade daan def dans les temps en France léegi yow da ngay nekk ay dirigeants politiques après day nekk ku inné quoi de nos jours da ngay gis ni ñoo xam ne masuñu xam luy politique masuñu xam sax la mooy transhumance ñoom lan la farat nit mu gagné loolu la ñuy kiiwal quoi tu donc amatuñu benn lecture politique bi Sénégal dafa commencé perdre benn race politicien yoo xam ne amoon nañu ko politiciens yu baax a baax y en a plus y a plus mon grand léegi moom léegi moom je pense que benn wutukaayu xaalis lañ ko lañ ko def ah gars yi maîtriser wuñu sax li nga xamante ne moom mooy la constitution ou bien la loi parce que faale loolu eh, ni yi ñoom ñoo tax c'est des ignares et puis ñun tey ñoo am problème euh, amaat gis nga yéen ndeysaan plateau bi ni ma fiy dégg ñuy wax wax bu rafet ma ne nous on a un problème Parce que ceux qui se retrouvent autour de ce panel-là aujourd'hui peuvent diriger le Sénégal par leurs idées. Mais est-ce que tey amaat yaadu na ak ñun xalaat yi ñuy génne fii qu'on se fasse diriger par les aveugles mais c'est qu'on aurait tout perdu on aurait tout perdu euh, amaat ah wax bi ni mais amat est-ce que tu sais que maintenant lu may participer participer seen rajo bi toujours mais damay continuer ba 6 heures du matin fii fii 6 heures du matin Europe à une heure de temps, nga mais nga sa problème de transhumance là man damay jàpp ni politiciens yi xam nga boo bàyyee sa yoon gëmuñu xam comme ni ma doon wax sànq ni vraiment. l'espoir est permis avec l'élection au Nigeria cette prise de conscience bi nga xam ne population yi ñu ngi koy am mais les politiciens ñoom du ñu gëm ni effectivement les populations sont en train de faire une certaine prise de conscience bi leen di permettre que ñuy euh, régler seen problème ak popula ak euh, politiciens yi sans pour autant sans plus verser dans la violence et autres quand un président ne compte plus sur des réalisation pour se faire réélire si lay def di nemporte quoi parce que bu fekkoon ni Awa Koudou njaay am na doole bi mu amoon Innocence Ntap Ndiaye am na doole bi mu amoon Bekaay Diop am na doole bi ko bi ko Macky Sall yaakaare ah euh, Sitor am na doole bi ko Macky Sall yaakaare je crois que kon mhm. Ablaye Wade du doon daanu en 2012. dëgg la. parce que lu ñu mënti wax aussi Ablaye Wade est venu en tête lors des euh, la, la, élections du premier tour. Ah, ah, ah. xam nga. il est venu en tête lors des élections du, du, du premier tour il avait trente huit et quelques pour cent. c'était c'était un très bon score dans une démocratie c'est un très bon score. et Amath yow yaa ngi a wax l'une des justement est un très bon parce que Macky aussi c'est un bon mathématicien man ma Macky ñi ko wër sax lay xalaatee parce que écoute li nga wax noonu léegi ah Abdoulaye Wade avait à peu près 34 34 81 la amoon Macky Sall a eu 26 58 c'est vrai que tout le monde savait que c'était déjà une victoire pour Macky li njëkk a am mooy que moment boobu déjà gis nga su gars yi dof dof lu woon période boobu parce que Macky gagné gul woon bu Moustapha Niass dof dof la woon ba ne Abdoulaye Wade lay àndal c'est qu'on n'aurait jamais plus connu Macky parce que c'était possible quand Abdoulaye Wade se retire pour le deuxième tour ñas dem mu jàppale ko tu vois soo xoolee ne par exemple su fekkee vingt six pour cent moom la Macky Sall amoon ça veut dire que Macky bu ñu naan dafa gagné élection yi dafa gagné élection yi il n'a pas gagné parce que Macky ci ñu ko voté loon tey même su fekkee moom moo ko ci mere pour une raison ou pour une autre parce que y a des gens qui sont déçus Macky boo dindee 34 pour cent wu Abdoulaye Wade yi Abdoulaye Wade xaw ma dafa li mu amoon yokk na am déet camp Niass ak explosion bi fa am bi amoon 13 virgule 20 te explosé na léegi te gàkku dafa dem camp Idrissa Seck avait 7,86 te amaana yokku na xoolal ñoom Bamba Dièye ñoom Gadio tous ces gens la mais ça te dire ça veut dire que te Khalifa Sall waxaguñu. donc ça veut dire que Macky actuellement nii est-ce que dafa nekk di yokk ay mécontents wala dafa nekk di leen wàcc wàññi moi je pense que y a beaucoup de choses qui se sont passées fii ci Sénégal yoo xamante ne ni y a eu beaucoup de mécontents secteur yu bëri mun nga ko tudd tey donc c'est vrai que moom il faut mu reconfigurer il est conscient de ça mais yoon bu mu war a reconfigurer la xamul parce que gis nga les mêmes pirates yi doon wër tous ces gens là tous ces présidents là ñoom ñoo leen di wër ba léegi et ils pas les débarquer parce que kuñ ci débarquer rek tu as vu les les les les pourcentages que je viens de nommer moo tax fu mu ne nii son obligé obligés maintenant looloo tax ñu naan dinañ jël en otage mais ñi nga xamante ne ñoom ñoo la jox euh, ce veto mais mais tu as à les écouter parce que bu gars yi bu amoon benn explosion bu ndaw assemblée nationale ba ñii ma la wax léegi la coalition la jalgati c'est que c'est que c'est fini ils n'ont plus les les dañuy wax rek euh, dañuy wax rek sur une nation le commun vouloir de euh, de vouloir vivre ensemble nekkul ci ñoom le commun vouloir de cohabiter dans un gouvernement moo ci nekkul amat ku nekk ci gars yi da nga fayoon soixante cinq millions pour ñëw nekk président pour toog fi ki nekk ku nekk si ñoom ci beneen bor ils ont vu qu'ils ont gagné pas bi dem na mais tey ji dem la la la chasse la saison est ouverte nous avons deux ans benn benn benn euh, warning rek laa la a euh, wax ni euh, yow kii Amath gis nga affaire bi ma gën a ragal moom mooy référendum bi ñuy wax mu nar a ñëw gars yi jël institution yi réforme yi ñu waxoon yëpp ak affaire yi ñu bëgg dugal ko ci biir nga xam ne yow boo ñëwee di prononcé wu da ngay wax oui wala non alors que référendum bi ça ne porte plus seulement sur la constitution mais sur beaucoup d'autres questions vous êtes d'accord sur les réformes oui ou non wii oui wala non rek ngay répondre ci référendum donc gaa yi nañu teey bu baax a baax a baax a baax mais référendum bi ragal naa dinañ ci yokk yeneen sujet yu bëri def ko benn package nga xam ne citoyen yi nga xamante ndeysaan dañu mel ni man jànguñu bu baax bu ñu ñëwee rek oui wala noo la ñuy wax après nag mu indi yenn affaire même ce pourcentage là n'a pas été calculé par nos sociologues ko xam Sénégal dafa bëri gars yu jàngul yoo xamante ne boo leen ne waaw wala déet te bi li ci nekk dafa bëri

c'est-à-dire que Abdoulaye sax dem na xëy na ba am un deuxième mandat di lewal un troisième moom s'il commence ni Abdoulaye Wade terminé il n'aura même pas le deuxième mandat dont il veut parce que xam nga yi doful si Cissé Lo doful quand il dit que ni bu ñu wàññee mandat bi c'est-à-dire ñoom xam nañu ni il est presque certain ils ne peuvent pas gagner au premier tour des defe naa gagner premier tour élection Sénégal jeex na fa mais yow dégg nga dégg est kii bi bu baax Amath euh, euh, euh, kii bi il a boo ko dégluwaatee seetlu il a dit mu ne je ne laisserai pas Macky prendre ce waaw parce que. <laughs> waaw lool dégg loolu dégg naa ko. dégg ah. naa Mayel Thiam. Uh-huh. nga xam ne moom moom moom la ñuy dénk pour mu gérer parti bi li mu wax parce que. Mm. bañ ko posé question ne ko mais mm. Moustapha Cissé Lodé. il ne se range kon amul discipline de parti mi ne non Moustapha mhm. Chello li mu wax il ne il n'est pas allé à de la discipline de parti parce que le parti ne s'est pas prononcé sur le référendum mhm. donc boo dégloo ñoom ñu ngi ñu ngi lewal ni au fait euh, le parti l'APR ne s'est pas prononcé sur le référendum l'APR peut toujours jug battre campagne pour le non c'est-à-dire que demander aux mhm. Sénégalais de voter non contre le référendum c'est-à-dire que ça mm. serait inédit quand même que le mm. président bu nekk APR proposer un référendum que ñoom waa APR ñu baat campagne pour le non mm. c'est-à-dire que loolu la ñuy jéem lewal mais kaasalaan na cen kaasalaan na cen même c'est-à-dire que ah. référendum ah. ñàkk référendum ah, ah. Macky son pouvoir mi ngi ci balance bi parce que dafa dafa dafa nekk dafa dafa am ay force yoo xam ne euh, dañ fee ne te il va falloir compter avec euh, avec elle du moins autant pour moi en 2017 wala 2019 mooy le PDS mooy réew mi bu Idrissa Seck. dëgg mooy le PS ma la benn question ah. vas-y euh, man man man dafa am dafa am benn lecture bu ma ci def bu doy waar je me suis dit en un certain moment a un certain moment de l'histoire, hein, et, et figure-toi bien bonne période, hein, à un certain moment de l'histoire du Sénégal, un candidat à la présidence annonce su ma jëlee pouvoir bi dina def sama mandat juróom mandat président bi juróomi at si ça amène aujourd'hui un problème pareil ça veut dire que ba mu koy wax dafa xamul woon xanaa li nekk ci constitution bi cest dire qu'en se présentant comme candidat et en étant déjà ministre, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, il ne maîtrise pas la, euh, la constitution du Sénégal. Parce que est-ce que Hamon Nene Bob, beaucoup d'effets, il sera tenu Non, Hamouko. Parce que bu Hamon Nene Bob, d'effets, voilà Hamon Noko, et dans ce cas, ce serait pire. Dans les deux cas, ça ne plaît pas pour le président. Bonne affaire, bon, Indi, quand vous m'en question, moi, c'est la question de Hamon. maîtriser la constitution du Sénégal ou bien l'article là-dessus wala déet sinon je pense que waru ko woon wax quoi beneen affaire mooy lu muy indi non seulement c'est en train de nous coûter par exemple ay fitnes ay discussion ba pare ça va nous coûter des milliards ba pare nag encore la suite xamuñu tout cela fi ñu nar a mëne mais lii yëpp lan moo ko indi celui qui avait fait le choix parmi autant de choix qui ont été faits par ce régime actuel mais c'est des choix yoo xam ne maanaam nous on ne discute plus sur ce qui fait avancer le Sénégal après Wade là right now on est en train de discuter ce qui va faire avancer le Sénégal après Macky tu vois man c'est c'est ce sont les questions que je me pose entre autres regarde la, euh, la mairie de Dakar mais la mairie de Dakar avancée maintenant elle stagne pourquoi parce que c'est l'acte 3 qui perd le Sénégal xam nga question boobu moom a jaaxal sur la constitution là quoi la question sur la constitution man bon je sais pas je ne peux pas épiloguer là-dessus euh, je suis pas juriste je suis pas constitutionnaliste alors euh, xam dégg naa leen daal ñu ne euh, soñ ñoom bu ñu leen expli bu ñu invité ci les plateaux de télé rajo qu'ils disent que ni euh, personne ne peut changer cette disposition de cet article te demuloo référendum ñenn ñi loolu la wax waaw amaat loolu loolu la man j'ai fait droit. waaw ah dama def après finance publique ak plus. Euh, mi ngoog mi ngoog. c'est-à-dire que Kantaa ah, xam na ko Kantaa ndax xam na ko wala xamu ko. Ah. Euh, loolu c'est sûr clair et xamoon na ko. cest à dafa parce que nekk na président assemblée nationale na premier ministre. non mënul ñàkk avec toutes les fonctions qu'il a occupées ba ñëw xam lu ah. constitution bi wax. Et puis ah. pendant trois ans, il a, été dans l'opposition. Il a eu le temps euh, de ah. disséquer la Constitution point par point, virgule par virgule. Ouais, Parce que s'il si, veut prétendre diriger ce pays-là, il faut que mu xam au moins charte ndeyu réew mi nu mu tëddee. xam na ko pourquoi mu diggee ko nag mais c'est c'est c'est simple. c'est simple xam nga. Euh, dafa am ay mesures yoo xam ne c'est des mobile populistes. Uh-huh. dëgg la. je vais réduire le mandat de sept à cinq ans. Uh-huh. da ngay wan Sénégalais yi ni man xëruma ci nguur. Uh-huh. su ma ci xëroon du ma ci wàññi ñaari at ak nguur nu mu neexee. est-ce que tu sais que y a beaucoup de Sénégalais qui dans ce piège boo waxee ñu ne la au moins. neena na dina wàññi mandat bi c'est-à-dire ñoom le seul fait que. mu wàññi mandat bi rek pour ñoom kii war nañ ko falaat point boobu rek et pour parce que dafa jouer parce que Macky aussi il a fait amin c'est un politicien voilà. il a joué sur la psychologie des gens dafa xam seen soxla lan la mu ñëw jaamu soxla yooyu soxla yooyu moo doon lan euh, gars yi bëgg nañu parce que euh, nee nañu Ablaye Wade dafa yokk mandat bi mere woon nañ ko ci loolu trop Ablaye Wàllu bu dee un deuxième mandat Sénégalais yi mere ko ci ba 65 pour cent sont levés pour jële fi Ablaye Wade jële fi Ablaye Wade nag mu tombe ci moom mu xam c'est-à-dire que Macky dafa dafa dégg li Sénégalais yi doon gën a reproché Ablaye Wade mooy mooy lan sa gabegie mooy lan bëgg nguur bëgg fi yàgg du la durée du euh, du mandat ak le nombre euh, euh, de de dépasse à deux pour pour être président la mu ñëw mi ne leen waxu. waxuma waxu nekk deux trois fois sax président mais même les sept ans dama koy wàññi def ko cinq ans. alors beaucoup de Sénégalais ont ont mais daf leen deuxième ah deuxième bi mooy lan euh, la traque des biens mal acquis dem nañu ba ne dem nañu ba ne la traque des biens mal acquis est une demande sociale mais ce qui n'est pas vrai. Ouais. Mais ce qui La traque des biens mal acquis n'est pas une demande sociale. Li Sénégalais di demander kay mooy la réduction des comptes loolu lañuy ñuy ñi nga xam ne dénk nañ leen ay nombo tànk ci réew mi ñooñu léegi nañ ñuy rendre compte mais tellement que l'euphorie était là et qui symbolisait maintenant la puissance Euh, du régime libéral à part à Ablaye Wade mais c'était Karim quand tu prends ce nga tëj ko ci kaso bi boo jëlee ay ñoom Ousmane Ngom ñoom Madi Kenya ñoom Samuel Sarr ñoom Ablaye ñoom Ablaye Baldé euh, patati patata tu prends toute cette liste-là tu les convoques un par un à la gendarmerie à la CREI un par un mais les Sénégalais se disent mais jeex na kii ñun kii kii lañ doon kii lañ doon wër même si les milliards ne viennent pas même si les milliards ne reviennent pas mais ñoom au moins ils un sentiment de satisfaction mooy lan kii kat xam na suñu soxla mi ngi koy jaamu moom ba muy commencé la ba muy déclenché processus la xamoon na ni du récupérer un iota de de ci muy topp mais il fallait que mu def ko pour que la gars yi ne au moins xam na suñu soxla te taxaw na ci parce que jéem na xam nga beaucoup de Sénégalais euh, ont dit que ni voilà xam on dit voilà au moins il a commencé quelque chose que jamais personne n'avait fait. donc. et puis nag erreur euh, dañ ci def sax erreur ah ci topp bi ñu topp noonu gis nga moment bi ñuy topp euh, Amath soo seetloo Karim bi Abdoulaye Wade daanoo les gens sont restés plus de six mois naan gars yi dana leen jàpp gars yi dana leen jàpp. gars yi di dugg avion di dem di ñëw di dugg di dawale prévu ñii di dem di naaw pendant quelques mois ñu ne léegi dañ leen défendre ñuy génn dëkk bi gars yi commencé di yónnee ci dañuy jàpp ay dara si la ak ay chèque xaw ma affaire yu demee noonu tu vois moment boobu gars yi xam nañ ne ñu ngi leen di suivre mais est-ce que tu t'imagines États-Unis bu ñu toppee benn nit bu demee ba affaire yi mat cinq heures du matin day ñëw sa mais mais loo bàyyi ni ñi pendant six mois ni ñi di naaw di voyager di dem de mais nit ki su fekkee dañ ko kii dafay am effet de surprise un peu donc état bi côté boobu aussi je pense non seulement def nañ fa erreur beneen affaire bi mooy amaat comme ni ma waxoon keroog boo demee ba nga xam ne da ngay yónnee ay commission rogatoire mais amaat boo leen di envoyé partout dans le monde par exemple sur cent banques mais banque bi boo ñëwee daf lay jox benn report bépp sénégalais parce que toi tu es l'état tu as mandaté quelqu'un mais soo naree def benn trait en rapport financier dans le monde. mais tu demandes un fichier général de tous les sénégalais qui sont logés là-bas amaana dina am ñoo xam ne sax sa njort yeggul woon foofu mais jàpp nga leen te loolu mooy nekk ay affaires yu concrètes yoo xam ne boo indee loolu ci tuur nit ki boo ko nee lii yaa ko même processus bi ñuy def ak Karim ko nar a def ak ku nekk fu ñu bloqué woon aussi ñu bloqué waat parce que c'est pas intelligent quand même un dossier financier yoo xam ne. bon da nga naan bon bref peut-être que gars yi bu ñu buggee tuumaal nit après da leen tuumaal mais bu fekkee vraiment pour impunité la wala dara am na ku ko wax démb ci benn sa programme xam nga démb xamu bërki démb effectivement ci euh, euh, euh, déclaration patrimoine comme nu muy waxee ne ku nekk fonctionnaire effectivement da nga ko war a am mais dëkk yi xam nga lu tax kenn du ko laaj kenn parce que chaque minute nit ñi xam nañ ko États-Unis tey bu gaa yi dugaloon surtout tur dinañ xam su fekkee yow am nga fa propriété ñaata ngay fay par yow ndax fay nga lii wala ndax parce que benn système mooy généré loolu donc ça veut nit ki lu mu am yëpp ak ñaata kër la am ak lépp ñu ngi ci benn fichier tu n'as pas besoin de demander euh, ça aux loolu mooy système bu conséquent c'est-à-dire impôt ak domaine dañuy liggéey donc ak yenn institution yi service euh, finance euh, ministère des finances parce que impôt fa la bokk ba tey donc dañuy regrouper actifu nit ki yëpp côté boobu nag ñun ndeysaan amuñu loolu yeggaguñu fa institution yi la ñuy dellu si waat bu ñu ko defaroon ndeysaan dinañu am avancement bu bëree bëri mais malheureusement on est toujours au pied de départ quoi malheureusement. mais toujours est-il rek xam nga euh, Serigne allo Serigne. waaw allo Amath. na def waay. waaye sant suñu borom bu baax ñoo ngi lay nuyu di siyaara. ah yaa ngi dégg sama waxtaan beeg Ibou te de dañ koo ñaar ñaar benn benn rek man di waxtaan. di waxtaan jaam suñu jaam maanaam damay solidariser rek moo tax ma dugg wax ndax yéen ñaar seen waxtaan suñu tool nii bu ma sañoon sax kenn du dugg dañuy bàyyi noonu. parce que seen analyse vraiment wax dëgg yàlla macha allah analyse yu pertinent ngeen def wax dëgg yàlla. surtout plan surtout sur le plan politique moom. ay analyste politique ngeen ngeen ñoo leen gis ngeen di détaché les schémas moom. Hmm? mais mais mais mais la la la transhumance qu'est-ce qu'il explique chez nous Serigne selon toi la euh, lan moo tax Macky soxla ñi nga xam ne ils étaient dans le cas des vaincus hier ñooñu aussi lan moo leen jaral malgré liñ leen nar a wax malgré liñ leen nar a joxoñ aussi braver tout ça fekk le président amin kii parce que dañuy wax naan la transhumance yi diw jugee na fii dem na fële. mais ñoo ñooñu leen di accueillir aussi est-ce que amuñu ci part de responsabilité. wa ah, kay maanaam transhumance moom amaat man jikko bi li ci njëkk problème de société la ñun sénégalais ba jikko lañ yor fu tooy rek nga dem tag fu wow nga jóge fa jikko boobu la seen maanaam li ñuy wax nouveau type de sénégalais dafa am jikko yoo xam ni. dañoo ñëw ñun judd fekk génération bi inculqué ñu ci ñu war ci génn ba set mooy lan dañoo war a topp ay idéal am gëm-gëm lii kat bi may dugg fii lii laa gëmoon gëm-gëm gi dem naa ba nëgëni toppatuñ ko wàcc nañ ko ah booba boo fa jógee ña ko bàyyi nga jóge ci partie boobu dem topp ngëm-ngëm googa faneen fu mu ne kooku kenn doo tuddee un transhumant mais ñoo xam ne ay post dong moo leen fa indi wala bëgg a mucc kooku jaay sa ngoor la déedéet musu musoo am sax ngoor ndax mag ñi dañ ñi ngoor kenn du ko am di ko jaay ñi koy def nag comme Macky Macky pour man dafa cuune il n'a rien appris ci ñi jaaroon ci kanam ana Abdou Diouf ana Ablaye Wade xanaa moom il se rappelle pas que ne Aïda Ndiongo moo tudde woon Ablaye Wade xaamaan jàngul dara ci loolu ba pare ñan lay jëli ñan lay jëli man Macky Sall bu demoon jëli des personnalités yu nga xam ni am nañ au moins benn crédibilité d'accord mais personnes yoo xam ne juridiquement ils son ils ont les seeni fichier judiciaire dafa tàq parce que ñii soit les organes de l'État leen nañ leen ñuy xaar un jugement wala ñii ñu rocc leen wala ñu ñii ñu juger leen tëj leen ñeneen ñi des ñu ngi ci kaso bi ñuy waxtaan ak ñoom buñ d'accord génn leen buñ d'accordul ñu bàyyi la ñu buñ d'accordul ñu des ci kaso bi mais fan lañ jëm li ma gën a regretter ci Macky Sall mooy un njiit bu nga xam ni dafa am crise de personnalité amul une sécurité assez amu ko Macky Sall man li ma gën a metti ci wax dëgg yàlla xeex bi ma ko xeexal mooy manque de sécurité bi nekk ci moom wax dëgg yàlla bopp train bi bu demoon réew mi du dem bopp train bi bu demoon réew mi du dem te man li ma gis mu koy doxale hmm? sincèrement bàyyi woon fi Abdoulaye Wade sax ak erreur bu mu mën a doon moo gënoon parce que Abdoulaye Wade bi ñu ko fi jëlee dañ ko jéppi jéppi goo xam ni lam ñu doon a indil ba lañ ko tegoon man jour bi nit da ngay am benn principe jour bi Abdoulaye Wade falee Karim Wade ci gouvernement laa bawoon lu lépp lu jege maanaam parce que foogoon naa ni organe PDS duñ mës a nangu lool bi biñ ko falee laa not woon ci waxi PDS musuma nekk membre nag sympathisant laa woon comme tous les jeunes ak ñun au moment mouvement étudiant yi ñu ne nekk de la force booba benn partie opposition moo fi amoon wax dëgg yàlla jeunes yëpp yi àndul woon ak maaroon ci PS yëpp taxoon ñuy sympathiser ak le PDS mais la dañ parce que kii lim gëm que ni lim gëm mooy deretam kooku àndul ak république bu doon loolu man ma toppi sama papa keneen toppi papam Macky Sall ñëw def poser le mêmes actes pire pire sax pire te nag gis nga Amath dañoo dugg fi mu toll ni Sénégal ci benn euh, escalade boo xam ni ah escalade de vengeance lay doon gis nga gouvernement bu bu Macky Sall gouvernement bu ñëw hmm, ak ak créé bi gouvernement bu ñëw même ñii buñ ko dindee dana ko dugalaat rëq ndigg vengé wu ñi ko dóoroon hmm, doog a jàll léegi daal man sincèrement dama damay xool bu may xool situation politique bi fi mu toll nii pour deux mille 2017 wala 2019 bu mu mën a doon benn benn expérience donc la am benn neexuma nag neexuma mais ma maanaam fa mu juddoo moo ma neexul parce que man dama ragal partie socialiste parce que partie de verbe la dañ fi nekkoon di wax rek di bind rek di wax rek di bind rek mais dafa am ku judd ci seen biir au moins boog xëy na damaa préjugé ku génn ci seen biir ndekete am na jëfkat mais niñ ko niñ ko toppee man toppee wu ko parti man xalifa Sall CREI 2 bi ma koy xool du parti du parti c'était comme un Seck à ses temps homme d'état la homme d'état la nit la muy poser ay acte mais nag la may ragal mooy ñu dikkati parti teguwaat parce bu Amath boo xoolee chemin parti yi nekk Sénégal fi mu toll nii la fi Senghor bàyyi woon moo fi ne ba nëgën ña fi Senghor bàyyi woon ñoo fi nee ña fi nekkoon ak Senghor ñoo fi ne ba nëgën mais c'est grave c'est grave Macky Sall ñëw au lieu mu am sécurité ci boppam maanaam jël ci gone yi déedéet mu ñëw bàyyi ñoo ñooñu toppaat ko xamoon nan nécessité nécessité de coaliser ak maanaam. parti socialiste ak les libéralistes mais nag nécessité boobu wax dëgg yàlla dafay am tamit fu muy yem fu muy yem comme ni ko Ibou dégg naa Ibou interpellé ko sànq pour eh, maanaam hmm, xalaat wala ñu jëm a njuuj njaaj ci ci référendum bi kooku tamit lu mat a bàyyi xel la ma référendum bi lu mat a bàyyi xel la lan lañ ciy dugal parce que duñu doon saxaar goo xam ni rek hmm, mais man yaakaaruma ni par exemple tamit hmm, parti social parti socialiste oh, la coalition bokk hmm, c'est coali c'est ñu bàyyi leen ñu bàyyi ko mu dugal ci yoo xam ni wax dëgg yàlla du du méngoo ak li nga xam ni moom lañ saytu woon parce que Macky ba muy signé ji les assises du parti ñëpp ñëpp ci àndoon ñëpp mennum Abdoulaye Wade mennum PDS moo ci ànduloon ñi des ñëpp ci àndoon mais tey kenn du taxaw di ko di ko revendiquer man pourquoi pour pourquoi ñu bëgg ko bàyyi ba mu ni léegi élection yi des na 2017 des na six mois mu doog a poser un acte hmm, pour jéem a wax ci waxi référendum yooyu te référendum ba sax la tax mu koy def mooy wàññi mandaam pour wàññi mandaam wala mu ñu bàyyi ko fa ne mais mandat bi c'est simple amaat nit ñi duñ fàtte mandat bi référendum 2001 référendum 2001 mandat bi cinq ans la woon Abdoulaye Wade bi mu koy changé deful référendum assemblée la ko awale kon Macky bu ko neexee mën na ko bañ a maanaam na koo bañ a def référendum référendum 2001 ba léegi ni moo valable parce que kenn demandé waatul nit ñi hmm, seen seen mille un bi ñu def référendum cinq ans la nit ñi waxoon Abdoulaye Wade bi mu koy changé bu doon dafa def référendum ni nit ñi ndax ñu yóbbu ko sept ans nit ñi ni ko waaw kon ku koy changé waat da nga koy yóbbu war référendum mais Abdoulaye Wade bi mu koy changé assemblée la ko awale assemblée la ko awale kon ba nag ni nit ñi joxewuñ seen xalaat dafa am majorité écrasante comme bi Macky Sall am nii hmm. mais makki nanguwul def loolu parce que li mu bëgg mooy jël yaa jaajëfu sénégalais yi ba pare te am set temps aussi moo tax liñ naan lu naar bu ndaw bi lu mu wax ci berkelle ba la ko déggee Moustapha Cissé Lo ñiy génn ñi man li ñuy wax lépp pour man Macky mooy def double jeu parce que dafa am insécurité insécurité ce maa ngi jégalu nag maa ngi jégalu di di di di rappeler waat auditeurs yëpp. Uh-huh. Hmm? Mm-hmm. que li nga doon wax sànq rajo bi. waaw. Hmm? Mm-hmm. luy dox lu ne day soxla ot day soxla essence. dëgg la ba gasoil lu mm-hmm. koy doxal. ñëpp jàpp ci rek. dëgg la te xam ne tamit maanaam ouverture bi du yàgg une semaine la. Hmm? bu ko defee kenn ku nekk am ci pas-pas wu bañ a bañ a xeeb dara. bañ a xeeb dara dëgg la. waaw bañ a xeeb dara te xam ni suñu rajo la. ku amul ku amul accès tamit par exemple ak mécanisme informatique tamit hmm, yeneen fay yeneen fayukaay yi ñu ngi fi. Mhm. yeneen fayukaay yi parce que bu ñu ñëpp am nañ am carte wala ñu am ñu yi yeneen fayukaay yi ñu ngi fi man nga def Western Union wala yu demee noonu. Mhm. Hmm? Mhm. waaw ñun ñëpp rek ñu ànd jàpp ci ñun ñëpp ñu ànd jàpp ci. waaw waaw kuy kuy participer ak ku dul participer Serigne Samb bu ciy jàpp. day bëgg sax soxnaam ak i ak i waa këram jàpp ci. parce que hmm. xam nañ ni maanaam li ma jàpp daal samay waa kër rek samay am ñu jàmm dama leen leen jàpp leen ci yéen it. Hmm. donte du ngeen participer. waaw na ñëpp def noonu rek ñu xam ni fii moom wax dëgg yàlla du du du état du Macky du du du du maanaam ñunu nee na. kon nañ ci jàpp ñun ñëpp. dëgg la di leen jaajëf di leen nuyuwaat nuyu bu baax. jërëjëf Faye jërëjëf jërëjëf Serigne euh, mbokk bi woote ci 347 bi salaamaaleykum. ah maaleykum salaam Amath. waaw soxna si mbaa jàmm nga am. waa jàmm rek man la maam yi New York. maa ngi leen di nuyu. naka waa New York maam yi. ñu ngi fi jàmm alhamdulilah. baax na ñu déglu la maam kontaan si waxtaan bi. jërëjëf. di wax ni moom yow ak moom seen waxtaan bi neex na sànq ba léegi maa ngi tëdd déglu. Mm-hmm. kontaan si ak bi ngeen di def yëpp. surtout yow bi nga mujjee def nag wax ni Macky Sall comme dafa. Euh, plein am dafa dox si maayinu sénégalais yi wax ne euh, déjà lu mu njëkk a wax lu njëkk a wax ne euh, traque des biens mal acquis demande sociale la ak affaire mandat affaire mandat bi comme comme comme sept ans lañ ko fal bu tëbee rek ni moom daf koy wàññi def ko cinq ans effectivement nit ñi dañuy wax ni waa kii de moom bëggul nguur te man loolu comme niñ ko waxee werante naa ko ak nit werante ko ni ko loolu la mu ne ma du loolu buggul nguur moo tax waa dafa doylu dafa lii dafa laa ma ne ko di loolu de doyluwul de te buñ demee ba ca kanam a kanam a kanam boobu bi Macky Sall bi doog a falu rek man gis nga buñ doxalee ñaar ñetti at di nga dégg ñu waxaat ne waaw léegi sax waaw parce que man sept ans lañ ko fal lan moo tax moom war ko wàññi référendum assemblée duggal fii jàppal fii xam nga loolu yëpp ay ay ay ay waxi ay ay ay naxee mbaay la comme moom ñoom dem nañu ba léegi xam wóor amatu ils sont devenus incertains que population bi mere nañ leen déjà ñoom seen bopp xam nañ ne échoué nañ ci affaire traque des biens mal acquis parce que mënuñu expliquer sénégalais yi quatre mille milliards yi yu bari bari bari yi ñu waxoon yëpp mënuñu ci wane sax benn ñi Karim Wade mi ngi nii moom la jël ah ba pare nit ñi mënuñu comprendre pourquoi ñoom ñu génne def seen conférence de presse kenn laaju leen ñu génne une liste de vingt cinq personnes depuis trois ans benn Karim Wade kese moo ci moo ci nekk ci kaso bi alors que depuis deux mille ba deux mille douze Abdoulaye Wade à utilisé plus de cent personnes ministres ak ñeneen DG yeeg ñëpp li xew foofu yëpp ñëpp xam ko ba ba léegi ñoom mënuñu mënuñu justifier pourquoi ñu ne Karim Wade donc boobu ba léegi lañ ci war a mën a poursuivre alors que ñi ñu waxoon yëpp vingt cinq personnes yi ku nekk yaa ngay doxi sa soxla léegi yooyu yëpp nekk na équation ci ñoom léegi nag pour jéem a fay wax boobu nag il faut ñu jéem a ay ñoom Moustapha Cissé Lo ñu waxkat yooyu jóg ku nekk di wax waaw du du fi kii ñun d'accord wuñ ci population bi sept ans la ko fal falu ko cinq ans Moustapha Cissé Lo moom en personne moom moom foofu sax dootu mën a mën a dootu fa moom Touba suba jungu dañ ko faa persona non grata moom moom tey ji Touba gisatuma lenn loo xam ne Moustapha Cissé loo mën na mën na dem tuubaa gañu ko fa c'est léegi nag ñoom seen bopp incertitude boobu nekk ci ñoom xam nañ ni 2017 baa ngi ñëw ñëw Idrissa Seck mu ngi si wet gi Khalifa Sall mu ngi si wet gi c'est que ñu ngi wax waxu génn si seen coalition boobu def PS xalaatuñu ci àddina ka ni PS du war a mën a am candidat en 2017 léegi nag tax na affaire yi jaxasoo na seen bopp ñuy wax wax waxu nañ def référendum wala nañ ko yóbbu assemblée wala lii wala laa Moustapha si Lo ki génn léegi li mu wax dëgg la bëy lu mu wax rek xawma ci ci bëy bu ndaw lu mu wax rek ci bëy bu mag ba la ko mag Macky Sall mooy wax ay waxam ñoom ñooy génn jottali ci ci population bi loolu kese la nag ñun de toute façon nit ñi fii li ñuy wax rek ni ñi léegi kenn dafatul am na ku ko wax sànq tamit même sa jabar bi bi nga xam ne mooy sax yow mënoo mënoo wax cent pour cent ni bu duggee ci ci si mbañ njàcce ba si si isoloir ba yow lay voté donc que ñu jaarale ko de référendum que dara Macky Sall moom oh, nguuram bi mi ngi ci balance bi moom moom 2017 oo 2019 oo dinañu abal moom ci ñu ma ñu mu gën a rafetee xam nga Sénégal nag keroog dégg naa benn nit wax ko dañu dañu suñu njiit dañu foni ñun ñooñu gën a muus wala ñun dañoo dof wala ñun xamuñu li ñuy def léegi Sénégal dootuñu xeex dootuñu xuloo ñàkk sabake yooyu xeewi na li ñuy def mooy dem dem dem inscrire jël seen carte toog xaar bu jour ba bu soobee yàlla dina dina li naan yuuxu dina jub fu ñu ko foogeewul woon lool loolu moo koy nar a dal parce que moom déjà lu fi promettoon kenn fi dara ah ñëw singali benn parti rek ñooñu rek ngay jàpp ñooñu rek ngay ngay ngay ngay ku ci ñooñu rek ngay ngay seet ku ci ku ci sàcc ba ñëpp xam ni sàcc nga sax boo tourné ñëw transhumé dem si yow nga nga daal di koy fóotal ni waaw amul deful dara daal di koy bàyyi surtout Ndour moom lu mu wax ah wax wax wax wax ba ne nañ ko sax enregistré pour que suba su su naree transhumé ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu génne enregistrement yi wan ko ni ko yow yow tu t'es dédié toi-même la def ci léegi nag mi ngi delluwaat na ca ca Macky Sall yooyu d'accord yooyu yooyu yooyu yooyu manque de man loolu man mënuma ko comprendre man daal man ngor fu ma fekk fa la may bàyyi am alalu àddina bi jaru ko subaa ñu wax ni li yaa ko fi def defoo ko fi man daal am naa at bi man jaaxal na ma man Sénégal man léegi xamatuma ci dara dara dara yëpp jaxasoo na sama bopp bi mais comme ni wax rek de toute façon moom 2017 wala deux mille dix une des deux lignes buñ ko ci def rek moom dinañu abal wax bi jeex ñu seetiwaat keneen am ah, ba keroog yàlla dañuy dimbale ñu trouvé koo xamante ni daal bu ñëwee affaire askan bi moo koy tax a jóg daal daal si man loolu laa xalaat di leen remercier di kontaan si émission bi trop merci beaucoup. jërëjëf mami wax ji leer na rafet na euh, Abdou bonsoir. bonsoir Abdou. bonsoir Omar sooy dama ko defal mu ko. na ngeen ci jàmm. waaw alhamdulilah. yow la ñuy déglu Abdou. waaw non man dama doon déglu nag parce que franchement déglu xamaguma si ji sax quoi. Ah, on parle de la transhumance euh, ban jàngat ngeen def ci transhumance qu'est-ce qui explique la transhumance euh, qui est qui est responsable ndax ñuy transhumer rek wala aussi ñu leen di accueillir seen camp wala boog dem débousculer est-ce que. Euh, fu ñu toll nii ci politique naka la ñuy jàngatee transhumance quoi Abdou waaw transhumance. bon transhumance en général euh, man franchement nekk loo xam ne rafetlu naa ko parce que quand même euh, boo xoolee ñuy transhumé en général euh, c'est des gens qui n'ont en général pas trop de conviction ou bien dañ koy def pour être à l'abri de la dame justice ce qui est d'autant plus déplorable parce que franchement. Euh, si on doit poursuivre des gens yoo xam ne dañ defe ne ni ils ont majoré le fait qu'on est transhumé dégg nga euh, auprès du pouvoir ne devrait pas épargner le fait que war nañ la topp buñ la waree topp mais da ngay xool aussi ñi transhumé amaat en général parce que quand même euh, même su ma xoolee visage politique bi am na li ñoo xam ne ni dëgg yàlla est-ce que parti lañ c'est ça revient au problème de Parce qu'un parti qui se respecte, un parti avec des, des sympathisants qui, qui pèsent un temps soit peu, du ñu gaaw transhumé dégg nga dañuy wax dëgg mais am na certains gens yoo xam ne nii moo tax il faut revoir que parce que euh, affaire bi c'est le contribuable encore man su may wax contribuable lay waxee parce que bu ñuy def élection pourquoi ça coûte trop cher parce qu'il y a des partis insignifiants yoo xam ne dañu nekk ci liste bi wala na am représentant ñu war a imprimer écarter tout ça c'est le contrôle qui paye cela c'est pas normal c'est archi franchement c'est aux antipodes même de cela des mots. Parce qu'en général, euh, bon, le Nigeria, il y a deux grands partis qui se présentent, en général. Denga. Chacun y va avec son vice-président. Et franchement, c'est l'occasion de saluer ce qui vient de se passer là-bas. Et, franchement, encore une fois, les je suis très optimiste. Parce que le cas du Nigeria est un exemple. La fait que nous avons une la première fois ñu élire un président avec la façon la plus belle kii oo oh, ko remercier ko féliciter C'est ça, c'est que l'Afrique qui décolle, c'est l'Afrique qui s'enorgueillit. C'est l'Afrique, c'est une, une, nouvelle Afrique qui renaît. Et crois-moi, avec tout ce qu'ils ont comme ressources et avec tous les progrès qu'ils ont fait récemment avec le Ghana, la Tunisie, Botswana, l'Afrique du Sud, nous n'en parlons même pas. Il y a lieu d'espérer, il y a lieu de, de, de, de, croire en une Afrique. Par contre, nous avons le Sénégal, sur le plan démocratique, franchement, yàgg na servir le leçon depuis belle lurette bi ñuy am multipartisme personne n'en pensait même pas c'est l'occasion pour moi de saluer le mouvement Y'en a marre c'est une ex c'est des garçons à encourager le fait que ces garçons puissent aller au-delà des frontières yi ngi leen gën a jege di exporter la capacité des jeunes de se prendre en charge de dire non au dictateur qui doit se maintenir au pouvoir c'est des gens à encourager et non su ma gisee Sénégal ay nit ñu leen wàññi ay nit ñoo xam ne dañuy soxor di wax loo xam ne sax wax yu ñaaw la sérieusement c'est l'occasion d'être fier d'être sénégalais c'est l'occasion d'être fier d'être africain donc pour être plus précis sur ce problème de la transhumance je crois que ça revient encore Amath au fait que bis bu la yàlla yóbbee honorable le problème essentiel dont on veut vraiment débarrasser ce sont dégg nga qui ne servent que des intérêts personnels un parti qui n'a pas de bureau de politique un parti qui n'a même pas plus de parce que c'est des signatures fantômes xaw ma lu ñuy laaj xaw ma vingt mille xaw ma boobu rombee yoo xam ne ni amuñ sax maison de parti amuñ sax benn conflit benn réunion benn congrès benn investiture nga bëgg a taxaw ne parti nga mais ça c'est n'importe quoi affaire yooyu moo war a dakk moi j'aurais souhaité que Sénégal on ait deux courants essentiels le courant libéral et le courant socialiste nekk des partis forts ñu dem élections parce que la grande tendance c'est ça Sénégal y a pas autre chose APR républicain alliance des forces républicaines ça c'est des partis fantômes c'est les réellement les réels deux partis au Sénégal c'est le libéralisme et le socialisme dégg nga loolu nag peuple bi ñoo war a yaxanal seen i euh, am-am xoolal ce pléthore de partis là doit disparaître pourquoi parce que dafa yomb rek ma créé sama parti élection ñëw dugg ci coalition alors on a on a la gagné ensemble on va gérer ensemble mais ça c'est pas boo xam ne ni ñoo di ko partagé un Bécaye Diop directeur d'école était un gars qui qui ne connaît absolument pas grand chose gis nga li fi doon wax Ablaye Wade ma sonn bale sax ma bale kooku xam nga ne transhumé wul kooku yàlla na ma yàlla baal Anta Imar la rek boo ko ne va brouter de l'autre côté mu dem brouter il n'a très raisonnable dégg nga ñu jógee ko ci loolu si tox nduux mais si tox nduux lan la fi waxul am na nit ñoo xam ne duñu tudd dara loolu mooy wax ci dañ nag ñoo fi dàq mën a def bruit dans le dans nos politiques sénégalais malheureusement moi par contre j'ai salué l'image de euh, la présence de euh, comment dirais-je Souleymane Ndéné Ndiaye parce que bu toogee comme ni la façon dont ça se passe au PDS ça marche pas il a eu le courage de le dire il a dit c'est pas la première fois jamais je vais me de derrière si encore une fois il a exprimé bu fekkee nag lii neexu la war nga mën a taxaw samp sa ndënd ne man li neexu ma je vais l'exprimer et libre à quiconque qui veut penser que il le fait pour euh, affaiblir la PDS moi je ne pense pas man daal euh, gis-gis bu gàtt boobu laa ci amoon wax ci yëpp mooy parti yu ñàkk fay yu saw yi nga xam ne ni tekkiwuñ dara dañ war a disparaître dégg nga Abdoulaye Wade waxoon na fi ne da ngay fay caution xamul lan ak lan mais caution boobu dañ ko doubler parce que ku mënul am cinquante à cent millions de francs CFA kooku mënul nekk président Sénégal waruñu ko nangu sax il faut avoir de l'argent après d'un leader c'est ça la vérité waaw bu fekkee ne ni amoo ko sa parti nañ ko cotiser bu ñu ko mun di cotiser affaire yi ko yow jaraloo leen ko ñu war a lu pour fal la dégg nga nga am sa grassroots mouvement ku nekk mën a contribuer nga teewal benn caution boo ko mënut a am tu parce que sincèrement, moi, Abdou, j'ai jamais marre de cotiser pour quelqu'un qui se présente alors qu'il n'aura même pas de l'électorat. C'est pas normal. Donc, ça complique le travail des décomptes, ça complique le transfert des, des, des, des votes, complique le nombre de isoloirs Tout ça, c'est inutile. Alors que beaucoup de la grande partie, la majorité des, euh, des cas, vous nous comptez 1% de l'income. Quand on a pour l'année, chantage bëgg a taxaw ne am naa nangam boo ma defalee ma transfert boo ma lu ma toog su ma toog loolu affaire yooyu c'est pas politique loolu ko tax a jóg quoi boo déggee ñu naan politique dafa salté politique moom dafa saltéwul xamaan amul dara lu set ak lu xam nga lan moo set ak lu salté jëkku ji ka kay def ak na koy defee c'est ça sax nit ku bon bu ko amee xaalis mujj bon dégg bu ko nit ku baax amee ak yu baax yi mu ciy def xaalis mujj rafet man loolu laa gëm quoi ngeen baal am na solo. sono ana allo Amath. waaw. maa ngi lay nuyu di nuyu di nekk ci plateau bi di nuyu Abdou. ñu lay fay. waaw euh, en fait Amath thème bi nga indi tey xam nga soo xoolee ñun problème bi ñuy am muy Sénégal moom la problème bi Afrique sous-développée yëpp am parce que soo gisee euh, ay transhumants transhumants suñ koy wax par exemple soo xoolee dëkk bu mel ni États-Unis par exemple kenn su transhumé jógee républicain dem démocrate dafay nekk loo xam ne dafay extraordinaire ba nga xam ne fépp lañ koy wane ci àddina bi parce que doo koy gis ndaxte dañuy am gëm-gëm li ñuy def ñu teg ko ci yoon euh, am ay institution yu dëgër ku def loo warul def ñu ñu faj ko ku jël loo warul jël nga nga nga nga nga dem wuy ji par exemple bu jaree ñu tëj la ñu tëj la donc ñoom jarul transhumance fii nii bariw fii parce que fii nii defuñu politique muy métier parce que da ngay gis ku ci nekk da ngay am sa métier da ngay gis koo xam ne day nekki avocat kii dam nekki par exemple docteur kii dem nekki lenn ñu am seen ay métiers yoo xam ne mënutuñu torox parce que métiers yooyu daf leen di may fu ñu toll au moins sax ñu am benn métier boo xam ne mën nañ koy liggéey di ci fayeeku muy xaalis bu lew donc ñoom transhumé ak ñàkk a da ngay gis koo xam ne day judd ci parti bi tey màgget ci parti bi génération yu ñëw yëpp nekk ay démocrate ñii nii ñi ñëw ñëpp nekk ay républicain ku nekk nekk sa place parce que xam nga ni doo dem di transhumé mukk ni man de maa ngi jugee républicain pour nekk démocrate parce que su ma fekk jee Obama am na lu ma war a may te tamit waroon naa defoon naa loo xam ne sàcc naa xaalis boo xam ne su ma demoon rek dina ma tëj loolu amu fi parce que républicain biy jóge fii nii pour dem ci démocrate yi pour rëcc du rëcc ndax lu tax bu rëcc mooy institution yi ñoo dëgër ñu sax président de la république bi nga moom bu jëloon dafay dem wuy ji kon jógee nekk républicain pour dem nekk démocrate loolu rëcculu la léegi nga ñëw nag dëkk yi nga xam ni moo sérieuxul muy Sénégal par exemple ci la bokk ñoom bu ñuy transhumé da ngay gis koo xam ne day nekk ci nguur gi di jël di jël di dugal boppam ci lu yoonam nekkul ñu nekk under the table di jël suñu xaalis audit amul dara amul léegi ñoom su fekkente ne nag beneen président ñëw na option bi ñuy am rek comme ñoom politique bi ñoom dañ ko def pour benn moyen boo xam ne ci la ñuy utee xaalis ci la ñuy teddee dañuy toog duñu liggéey duñu def dara parce que Sénégal ngay dégg xaalis kenn du ko liggéey danga koy lijjanti donc ñoom moyen la bu ñuy lijjantee looloo tax transhumance bari au Sénégal ngor jeex fa parce que yàgg nañu dégg ci loo xam ne ñun ay xale la ñu yoon sax boo demee Google tapé da ngay gis Iba Der Thiam texte bi mu bindoon ci Ablaye Wade ba ni woon Ablaye Wade exactement tey jaabal la moo ko wax de man waxuma ko Ablaye Wade benn jaabal la loolu Iba Der moo ko après Iba Der nekk xaritu Ablaye Wade Aïda Ndiongue tuddee ko Fantomas léegi ñoom ku ci nekk daal yow su président bi ñëwee rek fu sa affaire gën a baaxee sa yoon nekku ci politique gu Sénégal dafa salte parce que ñoom dañ ko def moyen boo xam ne ñun nii rek la ñu mun a teddee donc instant bii nii euh, Macky Sall sax xam na li muy def parce que Macky Sall doxul moom euh, xam na ni lii nii depuis ñu am indépendance ba tey lii nii mooy dox Sénégal PS bu xëy dam nekki PDS PDS xëy dem nekki APR APR xëy dam nekki AFP donc ñuy croisante noonu rek mu nekk léegi rek ñuy dem around de de circle ku ci nekk yow daal fi nga xam ne boo fa duggee rek kenn du la jàpp fi nga xam ne boo fa duggee yaakaar nga ni sept yi di ñëw ni yëpp di nga am par exemple paycheck yoo xam ni dafay unbelievable yow xaalis foo ko tourné rek ñu jox la ko lu la soxla nga nga def ko boo bëggee passeport diplomatique am ko yow tant que ñu ngi lay assuré yooyu sa yoon nekkul ci sa voisin bi nga xam ne jàng na ba ay lijaasam mat dem all the way kii te mënul liggéey kii nga xam ne fajuwul ñi nga xam ne amuñu yow seen yoon nekkul ci ñoom l'essentiel man naa nekk ci jàmm sama famille sama entourage immédiat nekk ci jàmm ñeneen ñi sama yoon nekkul ci ñoom donc ñun loolu moo ñu sonal au Sénégal te dafay gën di continuer parce que da ngay gis ñu naan la ay Ndeye Jacques Diop de lii bon léegi instant bii nii am na koo xam ne Serigne Mbacke Ndiaye mi ngi waaj a dugg du surprise même buñ ko waxee tam du surprise suba Serigne Mbacke Ndiaye su ko neexee mu dugg dem a AFP génnaat dugg ay APR parce que loolu mooy Sénégal loolu mooy Afrique dëkk yi nga xam ne yëpp ñun Afrique li tax lii bari fi mooy ñun buñ ñu falee dañuy sabaru par exemple kii xar président wala ñu fal ko ministre semaine bi yëpp këram sabar la après ñu lay tagg vraiment lii nii xamoo nga ne di nga ko am yàlla en fait dañu lay tagg ba nga sonn parce que instant boobu dañu lay bëgg wax ne la tedd nga yow de dootoo torox parce que vraiment gis nga ñu la fal alors que lii fonction la dañ la jox benn fonction nga war a yeewu dem liggéey mais dañuy nekk di galayaabe toute la semaine parce que xam nañu léegi toroxte jeex na ci kër googu noonu ak yeneen entourage yu immédiat ministre boobu ay mbokkam ak yëpp pare nañ ci toroxte donc yooyu moo yàq suñu réew yooyu moo ko yàq ba nga xam ne euh, du fa jóg xam nga président Sénégal dafa lay yem sax parce que xam naa ni Afrique li fa baaxul bari na mais comme ñun tamit li xew suñu dëkk bari na bari boo xam ne du ma di tooñ yeneen dëkk ñun lu ñu yàq au Sénégal mooy suñu président yi dañu muusul ñoom dañuy jiite ba pare te en fait muus nañu muusu sàcc xam nañu ni ñuy sàccee parce que la preuve mooy mënuñu ci jàpp kenn te balaa ñu lay jàpp dina def ay vingt ans trente ans ñu lay topp dañ lay topp topp topp ba xëy retraité ñiy cardiaque pour xool xaalis bi fu dugg effectivement donc ñoom am nañu intelligence sàcc donc intelligence bi ñu amul mooy ñoom dañu jiite benn population te population bi yëpp yàlla may na leen xel duñu ay mala donc ñoom balaa ñuy nekk fii di nekk di dugg ci quartier yi di joxe ay saaku ceeb di joxe ay xaalis ñu gëmul dara wala ñuy dem fekk ñoo xam ne ñëpp a leen sib kenn bëggatu leen ndax yàq bi ñu yàq réew mi ñu dem di ci root ci ay benn ay ñaar pour par exemple cent personnes yu ñu mën a indi trois cent personnes yu ñu mën a yëkkati defee naa ñu kontaan loo woon nation boobu moo moo doon nekk seen ndam parce que tey su Macky Sall ñëwoon il n'a pas besoin di dem di jëli ji Awa Koudou Ndiaye bi nga xam ne moom dafa war a wuy ji moom fu Karim Wade tëddee rek moom dafa war a nekk jigéenam à côté di ko wéttali parce que moom dafa sàcc ñu xaalisu réew mais moom tey ñoom bu ñu ñëwoon ñu toog ni ah ñun de ñoo laaj réew mi pendant di campagne dugg ci village yi dugg fet ñun dañu laaj réew mi mais ñun gis nañ ni réew mi doxul kenn demandé wul benn nit Amérique sax tey di économie bi bone kenn expecté wul Obama yéeg rek en deux ans rek Amérique jugaat mais da xam ni effort yi ngi fi tey Sénégal gàttuñu xel baadoolaaw ñu su président ñëwee di def ay effort ñëpp dañ koy saluer mënuloo tey ñoom moyens yi nga xam ni moo leen di fal bu ñu ñëwoon nekk ci du ñu soxla di jëli ji ay nit yoo xam ne tekkiwuñu dara parce que gëmuñu dara soo ñëwoon nga focus ci unemployment daal di man de vraiment Sénégal jeunes yi macha allah bari nañ fi te lu mu bon bon ku nekk am nga métier nañ leen jéem a xool lan la ñuy def pour ubbil leen ay affaire ubbi ay factories defal ay affaire ba xale yi mën a jug am yaakaar loolu soo ko defoon rek gañe nga par exemple deux millions de jeunes xamal loolu rek kon gañe nga ay voix léegi nga juge ci loolu ni xam naa ni man président développement mënul am te baaxul léegi ma ñëw jublu ci paysans yi xool naka lay def pour ñu am sax benn espoir loolu boo ko defoon gañe ga yeneen deux millions de paysans xam nga yooyu da koy def population bi soxlaawuñu PDS bu nekk à côté di sànni xeer wala AFP nekk à côté di sànni xeer wala ñeneen di transhumé population bi dof ñu te ku nekk bëgg nga lu baax soo toogoon pendant vingt ans en fait euh, Sénégal ngay gisee ku juddu ba retraite jot te liggéeyoo. Sénégal rek nga koy gisee donc soo ñëwee loolu commencé wàññeeku espoir bi commencé ñëw nga gis nit yi au moins di dem ci centre yi di faju euh, coulement soo ñëwee nga faj même bu dee cinq cent ngay fay ñëw toog nga gis médecin bu ñëw parce que Sénégal y a tellement de médecins mais ñëpp ngi daw parce que da ngay gis centre boo xam ne benn village la ñu naan la noo tey nag xam nga amul docteur fii léegi ay trois semaines docteur bi dina ñëw léegi yooyu noonu yu ridicule yooyu Afrique nga koy gisee Sénégal nga koy gisee donc yooyu su commencé woon di pousse ndànk-ndànk ngeen jël nag léegi yéen seen euh, coono bi ngeen nekkee nii comme tey Thomas Sankara bi mu ñëwee munoon na dem bi jëndi ay oto yu bees mais dafa retardé ay oto wan leen ni leen damay jóg pour ñu xool naka la ñu mën a économiser pour population bi nit ci dañ lay bëgg mais mënu leen ñëw jël xaalis bi di ko pasar pasaree yéen ku ci nekk waxut li sax million ay milliards la ñuy wax donc suñu président yi muusuñu muusu sàcc la ñu am mais amuñu muusu lu leen fiy téye donc affaire bi du référendum du cinq ans du sept ans affaire bi yëpp mooy ñun balaa ñu nekk di war a yóbbaat Macky Sall ndax cinq ans lay def wala sept ans nañ leen war a population bi nekk biir Sénégal nga xam ne mënul tànn ñun loolu la ñu war a war a yóbbaat fu mu nekk nii ñoom fi deux ans yi di ñëw ñuy tam ñuy campagne mais anyway transhumance du mus a jeex Sénégal parce que mentalité bi la affaire yi daal xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti wax yooyu tànk mi ngi am ci dëkk rek nii dëkk boobu pour mu jëm kanam day metti merci. di ko jaajëf bu baax a baax euh, Mor An. waa Amath ngi leen di nuyu. ñu ngi leen di fay waxtaan bi maa ngi lay déglu yow ak Ibou ngeen tàmbale mais waxtaan bu amoon solo la moo tax nag ñi ñëpp doon déglu. di si jàngat euh, ndax nit moom bu lay jox euh, ay xibaar muy information boo xamante ni vraiment jël na temps pour gëstu si euh, li gën a jaadu mooy nga déglu jàngat déglu ko man see jëla njariñ te yaakaar naa ni coono bi mu doon daj pour am information yëpp am na njariñ ndax ñu bëri tey xame nañ ci lu bëri ñu ko si sant di ko si gërëm aussi yow mi créé plateau bi nga xamante si la ñuy mën a partager loolu lépp it aussi loolu moom vraiment ñu ngi leen si sant euh, transhumant bi ngeen di wax amaat man problème bi ma si am man ki leen di woo mooy sama problème xam nga man président Macky bu demee bay woo nit ñi gën a ñàkk njariñ politiciens yi gën a nekk en perte de vitesse élection locale yi dafa déterminer lu bëri mais koo xamante ni ñi fi wo ñëpp tey ji ñu ne ñëw nañu APR mais ñoom ñëpp demoon nañ si locale yi demoon nañ ci local yi lan lañ amal seen bopp ku amalul boppam njariñ lan lan lay amal ay njëriñ man bu doon avant local yi sax mën naa ni peut-être ñi wax nañu bëgg kii mais yow yow gis nga baromètre yi xam nga li ñuy pesé xam seen poids nga jëm jëli nit ñoo xamante ni yow xam nga ne amaluñ la benn njëriñ lañ lay dollee encombré amaluñ la benn njëriñ amuñ luñ seen bopp njariñ amaluñ askan wañ dëkkal njëriñ yow mi leen woo sa bopp amul leen njëriñ malheureusement nag li ñu ko jural muy Macky xam na ni amul bilan bu mën a teg si ndax gis nga élection yi bu fekkee en 2017 la trois ans yi mu jot am moom liggéey bu si dara 2016 euh, année électorale la bàyyi boo lu muy def mu def ko léegi jéem a réaliser dara fii ak décembre à partir de janvier 2016 ba ni ñuy ñëwee février 2017 liggéey du fi am ba muy am lu muy teg bilan bi loolu mooy li ëpp solo te li Cissé wax bu leen ko xeet de Cissé Lo nee na xam na ni mënuñoo gagné premier tour kon il fallait que Macky Sall def wax waxeet def mandat bi sept ans te it na ñoom si ñaar rek la ñuy compte fi ni si ñaari sénégalais nee na sénégalais muy séeréer bi ak pël bi moom nee nañ quelque soit alpha lu mitti mitti à quatre-vingt pour cent dinañ wooteel Macky Sall nit ñi woote wuñ pour kii ñoo bokk dëkk wala ñoo bokk xeet ay sénégalais lañu comme ñëpp. dañ xaar ni li leen Macky Sall yaakaar ngeen amoon si moom am na lu mu leen satisfaire wala amul lu mu leen satisfaire gis nga moom fi mu toll ni bilan lañ koy laaj ñun ñoo nekk si defari programme ak di xalaatal Sénégal ak di leen proposer mais moom dañ ñu ko ana lañ la joxoon loo ci def ñun na ñooy ñëw naan xëy na bu ngeen ñu joxee ñu dañ leen indil lii nañ indil laa moom loolu du génn na ci foofu moom bilan lañ ko laaj na góorgóorlu si bilan te bàyyi parti yi ñu nekk seen jàmm liggéey seen liggéey ba élection jot ñu ñëw présenté aussi kanamu sénégalais te wóor na ko ni moom suba suba suba bu demoon élection dina ñaaw si booram waaw dina ñaaw si booram ndax problème bi munoo ñëw am vingt six pour cent si bi ngay nekk bi ngay foor jaar si yor nguur gi ça fait trois ans mu leer ne la vingt six pour cent yooyu nga amoon la ci ëpp dañ na gis nga nañ bàyyi taxaw naan Macky Sall 65 pour cinq pour cent moom lañ am en deuxième tour mais Macky Sall 26 pour cent lay représenté ak i alliés ak coalition Macky 2012 te si diggante bi 26 pour cent yooyu ba léegi dafay wàññi ko mais du yokk tey quelque que soit alpha AFP dañuy am seeni candidat muy Malick Gakou wala xuma kan lay doon. lenn li Moustapha Niass lii keneen téye lii ñoo xam ñaata lañ koy kii mais da lay wër ni lam ko la ko Moustapha apporté woon en 2012 mun ko ko apporté en 2017 quel que soit alpha parti socialiste moom waxuma ñaari euh, candidat mais bu fa ñaari candidat génnul nañ sant ndax Mamadou Lamine Loum probable candidat la Khalifa Sall probable candidat la kon foofu quel que soit alpha lu ñu apporté woon loolu day jeex ñun moom taxul ñuy wax ñun moom su génn yu njëkk yi lañ génn xëy na lañ ko indil sax bëriwul huit pour cent la waaye téyewaat nañ ko na ko wàññi soixante cinq yi ak ñeneen ak ñeneen comprendre kon moom tey li mu waroon a reyee boppam muy jéemul góorgóorlu ci bilan bu baax boo xam ne na satisfaire sénégalais yi mais bàyyi jeu bi mu nekk ak nit ñi concentration bi mu def si traque bi ak explication biñ ci def ak naan reddition des comptes mais traque lañ def defuñu reddition des comptes nañ waxante dëgg buñ def buñ jaxase nit ñi nit ñi kenn laajul kenn lañ la laajoo la nga yoroon lañ la dénkoon noo ko liggéey noo ko doxale dañ la lii nga am boo ko jëlee te waxoon naa la ko avant ñuy dem si jugement bi nee naa la CREI quel que soit alpha ku ñu fa dañ lay tëj ndax nañ liggéey CREI la ak texte yi ni mel juge bi en ultime euh, conviction bu àttee kuñ ko indil da koy tëj du tribunal boo xam ne dañ fay dem ñu lay relaxé principal accusé duñ la mën a se ndax nu ni délit bi constitué la force boo ñëwee justice bi dina am fu la tëjee Abdou Diouf mi ko defoon xam na ko xam na lu taxoon mu def ko donc ku xam origine traque des biens mal acquis fa mu jógee si droit français yeeg yooyu yëpp da ngay xam ne lii pour éliminer ses propres adversaires politiques la jeex na te dama jàpp ne énergie boobu mu si def pour éliminer Karim Wade énergie boobu de bu defoon pour développer Sénégal wallahi lazim moom la ëpp lii moom waaw dama defee ni nag dafa amul intelligence wala xëy na nguur mu def loo wala wala xëy na pale bi aussi boo fa yàggee tuuti dafa am feebar bu muy def si yow ba da ngay fàttali la fa dugal waaye na ko wér ni nag contrat déterminé la jox président bu mën di doon bientôt balaa yàgg lo néew fii ak 2017 bu dee def na ko wala 2019 dina ñëwaat taxaw si seen kanamu Sénégalais yi di leen proposé ne daa bëgg bëggaat liggéey ñun ñiy joxe nag liggéey képp ku ñu jox suñu liggéey dafa am lu ñuy xaar si yow ndax joxuñu ñu la kat palais baa ngi ne demal nga dëkk fa jox la dix milliards sa fonds politique yëkkati plus de deux mille et quelques milliards jox la ko budget annuel pour nga war a fonctionner Sénégal pour que ndax da ngaa rafet wala ndangam nangam déet wala dañ laa xeexoon démb ñu lay jàppale yooyu jeex na fi de nañ kuñ jox suñu réew pour ku ko liggéey la na góorgóorlu lu am ay résultats. waaw gis nga leen def ba am centre Abdou Diouf am boobu su si góorgóorluwaatoon si leneen rek amaat leneen mais nag jéemu ko la ko ñor moom muy centre bi nga xamante ni bëgg na woo président français yeeg ñeneen ak yeneen pour prestige defar na ko en moins d'un an loolu mooy suñu problème amaat ñun malheureusement avec Macky Sall Sénégal si boppam mooy dul dem dul dem lii bu wax léegi nii alternance bi dafa am kenn xalaatul après Ablaye waa lan moo war a am mais képp koo gis mu def Sénégalais tey espoir am ko wekk si après Macky Sall kii ñëw après Macky Sall kii ñëw gis nga Khalifa Sall bien vrai que bokkuñu option politique mais am na fu ma ko naw gis nga bi muy jëleen décision à Dakar dañu man dama koy jël ndax daf mu ko war a def su liggéey la dama koy liggéey ay mandat teguma fi intéressé wu ma su ma defee suma liggéey dinaa ki teg suma conscience bu ma peuple bi falaatee ma ñëw liggéey leen bu ñu ma falul ma xam ne leen waroon def def naa ko gis nga nag Macky bu amoon ngëm boobu tey jii kon adversaire politique du ko am mais tey jii mooy créer de tout pièce ay adversaire potentiel nag yoo xamante ni nag ñoo koy sonale en 2017 te it ñun wax dëgg yàlla li ñuy ñaan na élection yi doon 2017 moo xam référendum pièce bu mu si mën di def man lu mu si mën di bind amaat d' accord naa ko nañ ñu ko waaw rek na dem ndax bu ba dem ñun dinañ mën a defaat ménage bi organiser waat suñu Sénégal teg ko si yoon nit ñi liggéey quoi le temps ñu liggéey mais cinq ans yoo xam dañ koy perte moom ëpp na si am réew waaw ëpp na si am réew sant nag di la gërëm si li nga dugg si politique léegi <laughs> xam nga lu tax ma la koy wax amaat hmm. du affaire wu mbalak la de gis nga man damay bëgg sénégalais bu honnête di servir réewam comme si réew li koy changer ay homme politique la ñu fexe ba am maximum sénégalais yu honnête yi nekk si biir parti yi ba mën a dindi nit ñu salte yi si nekk loolu dafa am solo ndax gis nga bu ku nekk toogee fi nga toog naan du def politique politique dafa salte nangam nangam ñu la gées ñooy ñëw di jël ay décision yu lay engagé doo ci man dara loolu waaw kon il est le temps que bépp sénégalais boo xam jàpp nga ni am nga njub am nga gis nga ni réew mii doxee te neexu la demal nga seet si benn groupe boo xam man nga fa dugg pour liggéeyal Sénégal ëllëg te bu fa ñëpp bu ñu jub ni buñ fa bëree rek ñu dëng ñaxat fa waaw foofu rek lañuy changé affaire yi gis nga si liñ boo maa bëgg a dañ naan institution mais amaat institution mooy mettre boppam en place wala ni sa koy mettre en place. nit moo koy mettre en place. mais bu ñu amul nit ku honnête noonu la ñuy defaraat institution yi fiable. man problème boobu laa bëgg. boo waxee ñaan respect des institutions mën naa laaj. Eh, mën naa mën naa laaj rapidement benn question morale parce que franchement li mu wax sànq dafa nekk wax ci man pour pour man jom jom importance. mais li ma si xaw a jaaxal mooy parce que parce que nit du mët mais aussi nit am na sañ-sañ yaakaar ne parce que man li may wax conviction la koy waxee et je crois que j'essaie d'être honnête au maximum que je puisse. Mm-hmm. dans dans dans mes dans mes propos donc euh, sincèrement loin de moi l'idée de de vouloir faire la politique politicienne. Mais ce qui, ce qui est bizarre dans ce cas, s'il est pris avec esprit honnêteté, Madame est pris avec esprit honnêteté, pourquoi on a une si grande divergence Parce que l'on quand même aussi relate. Parce que je ne suis pas apériste, mais franchement, ne me disais aussi me défendre. Être de Réumi ne veut pas dire que tout est mauvais dans ce que fait le parti au pouvoir. man foofu lay waxee comme amaat li nga doon débattre démb ci sa plaidoyer bi parce que ànd ak nit ki taxul nga ànd ak moom à cent pour cent à l'aveugle comme ñoom jaww ji nit ñi dafa Ablaye Wade dégg nga mais aussi moraan la fekk nga nekk waa réew mi ne devoir ne devrait pas vouloir dire directement que tout ce que fait le président Macky Sall est mauvais xaw ma na xam nga fi may waxee parce que quand même nga wax sànq c'est une phrase très très très importante bu fekkee ni nii politique dafay salte c'est parce que dañ koy doxalee la bu fekkee ni ku nekk mën nga jël honnêteté ak bëgg Sénégal dugg ci parti bu fa ñu baree ñu bon ñi dinañ wàññeeku dinañ daw loolu dëgg la te loolu lañu war a ñaan peut-être man ni muy xoolee peut-être moo dëng wala parce que man yaakaar naa ne gis-gis boobu boobu laa ci am bu fekkee boobu nag laa ci am yow nga am ko ci pourquoi max yow ñu am ay vision yu très différente loolu moo ma xaw a jaaxal ci mi daal bu fekkee mën nga éclaircir sama lanterne ci loolu parce que vraiment mosuma dégg nga développé ne Macky Sall x y z de façon technique lay def loo xam ne ci yaakaaroon ne dinañu génn ci guute gi mais souvent dara baaxu fi nangam baaxu fi xam nga loolu dafa yomb rek mais bu ñu waxee avec objectivité et honnêteté yi en tant que citoyen aussi il est de notre devoir de vouloir émettre des idées wala proposer ay solutions et non de dire que c'est mauvaise conscience parce que nos faibles économies ne peuvent pas nous permettre de tout le temps changer de régime c'est pas c'est pas ce qui est souhaitable peut-être bu fekkee mën nga ma leeral si loolu daal. dafa mel ni Mor amoon na problème connexion mu nekkut ci ligne bi Abdou ah, malheureusement. ah mbel mbel yëpp moo dégguma loolu musiba la di. <laughs> <laughs> Euh, damay daal di jëw très rapidement rek Ndaw après Super Gaka après Abdou euh, Mbow euh, Ndaw Canada bonsoir. bonsoir Amath. vous allez ngi waaye sant bu baax. Mhm. maa ngi nii ñi nekk ci panel bi yëpp. ñu di fay. bon en man damay commencer fii soxna Anna daaneel quoi mooy mooy mm, problème maanaam société bi daal part de responsabilité bi ñu am ci ci kiwu transhumance puisque dañu dañu benn affaire boo xamante ni léegi dañ naan alal moom boo ko bëggee am demal nga politique yi quoi donc bu fekkee ni alal kii politique business la donc ku nekk da ngay xool moyen bi gën a baax pour nga gagner nga nga nga jaar fa donc benn benn marché la daal da ngay xool fi fi la arrangé bu la arrangé nga dem bu la arrangé wul nga dem say mbokk parfois dañ la ciy encouragé boo toogee sax ñin la da ngaa ñàkk fayda dama <laughs> seeti ji nga am pour nga am dara mais man problème bu ma gën a gën a gën a metti mooy mooy que au Sénégal parti yi nu ñu bëree c'est-à-dire idéologie amul fa benn grand wax na ko que ni idéologie deux la mooy socialisme bi ak euh, ak libéralisme c'est les deux principal idéologie yoo xamante ni ñoo valable mais ñeneen ñi créer yeneen parti yëpp yëpp yëpp amul lenn lu ñu gëm donc bu fekkee ni nag sa parti déjà ci fondement bi mu nekkee basé wul ci dara mais pour nga changer basculer dem feneen dafay yomb mais su fekkee ni da nga am ay valeurs yoo xamante ni dafa ancré wu ci benn idéologie au moins yow di nga toog nga ni ah man kat kii comme su bokkuñu vision bii nii duma dem ci moom et li ci gën a ci euh, tamit fu après ñi jéem a xool financement parti politique yi kan moo leen di financé puisque Sénégal chaque fois nga gis nit mu mu dem élection doo xam fan la jëlee financement da ngay jékki rek gis ko mu présenté wu donc foofu tamit foo ñu jéem a xool état bi jéem a ut ay mesures yoo xamante ni ku nekk booy participer ci élection ñu xool fan la say financement di jóge ci militant yi lay jóge o dafa keneen ku la ku financé loolu dañ ko war a xam bu bu bu loolu weesoo tamit man parfois damay gis comme par exemple des gens comme Bekay Diop yi ñuy wax ni ñu dem transhumé mais man man man bettu parce que boo liiree livre Abdou Aziz Ndaw bi en fait moom lañ doon jiñ ni moom dafa def euh, kii bu deux milliards et demi détournement mais c'est sûr que su fekkee ne avec traque yi mu ngi ñëw mais lu muy njëkk a def mooy day jéem a sauver boppam ah donc su ko mënee day dem da day dem rallier wu ci Macky eh, pour ne pas être entendu quoi yaa mm, kii ku ñuy waxati mooy mooy moo moo mooy Souleymane Ndéné Ndiaye parfois bon am na ñu koy comprendre mais mën mënuma ko comprendre parce que parti bi daf fi nekkoon boo xamante ni leader la woon ci ñi nga xamante ni ci ci ci ñi fi gënoon am doole si la bokk donc benn moment dafa noppi affaire yi dafa da ngay cohérent c'est-à-dire début bi dangay bu fekkee ni àndoog li li parti bi di doxal da ngay teel a quitter nga bàyyi ko dem seeti leneen mais munoo toog toog toog toog ñu xam say relation ak Macky Sall nga toog waxoo dara ba benn instant nga daal di génn daal ne maa ngi créé parti instant bi nii day créé parti mais c'est sûr que si Macky la jëm bon man loolu laa jàpp parce que day day rafetal yoon bi rek mais tôt ou tard foofu la jëm beneen bi si topp mooy da ngay gis ñoo xamante ni dañuy bàyyi seen parti dañuy bàyyi seen parti jëm ko justifier dem seeti dem seeti euh, parti présidentiel mais man je me ni bu fekkee ne dangay danga danga nga da nga bëgg vraiment def politique boo bàyyee parti présidentiel jéemal créer sa parti nga gëm ko bañ a def transhumance que tamit affaire bi leen daf ci am mooy que valeur jom ak ngor yi nga xamante ni moo fi nekkoon yooyu ñoo commencé di échar que man mënuma gëm ni nit ku am ngor dëgg dëgg dëgg dëgg di nga def yenn yi ñu fal la nga nekk ak nit ngeen cheminer ensemble mu metti mu neex boo mu mettee doo ko fi xaar nga daw dem ci pàcc bu parce que parfois tamit ñoom dañuy mener une vie boo xamante ni après bu seen reñ jeexee rek dootuñu mën a survivre donc seul moyen bi ñuy mën a def mooy demaat ci état bi pour survivre loolu nag su fekkee ni moom day dox ci réew maanaam société bi rek ñoom ñoo war a jël seeni mesures c'est-à-dire ku def loolu ñu sanctionné instant bii nii Y'en a marre li ñuy def baax na trop mais je pense que instant bii la affaire bi gën a baax au moment wu ñi ñëpp ñëpp ñëpp fi ne nii ñu ngi dam jëmal jubale Macky te peut-être liste bi dafay commencer rek mais avant fii ak 2017 di nga gis que ni des personnes des centaines de personnes dinañ dem rallier donc man loolu nit ñi en fait daf may daf may poser problème quoi puisque vraiment man je me dis que ni problème transhumance moom problème principe la ku nekk am nga ci part de responsabilité que ça soit parti au pouvoir bi lay accueillir société bi parfois ak même les hommes politiques yi nga xamante ni ñoom dañ ñàkk seen ngor di dem puisque politique saltewul mais ñi koy def parfois ñoo salte ay xel man loolu laa amul solo maa ngi waaw maa ngi déglu jërëjëf Ndaw ah, ba su fa xam may ma tuuti pour ma Mor ah, Abdou Tabe interpellé tout xam moo tax dégg nga ko ou wa donc dégg naa ko. acca ah, bismillah loo nga kii. dégg naa li ma wax mu ni li far réew mi dafa tax mënu ma gis lenn lu Macky Sall lu baax la non or que demeewul noonu de eh, tey dama bëggoon nga yow li nga jàpp ni baax na nga ni ma lii la ma wan la lii moo ko gën xam nga lu baax buñ koy werante lu gën def fànneekul man dama xaarul si Macky Sall lu baax dama doon xaar si moom mu def lu gën li gën li gën nag bu ko gisul ak bu ma gisee ni lii baax na te ma gis ne am na dix mille fois lu ko gën du ma ko mën a apprécier ndax foofu laa ko doon xaare ndax quelque soit alpha Macky Sall génération après l'indépendance la ñun jeune bi yi nga xamante ni tey ñoo mooy sunuy mag ñu bokk ak ñoom benn génération wala ñu magee ñu ay dix quinze ans dañ doon xaar marqué sunu époque wane ne sunu papa xeex indépendance ak sunu maam yi participé woon si colonisation ba jeex tey ñun suñu génération bu ñëwee dinañ marqué lu ëpp doole loolu créer ay rupture yoo xamante ni wane ni indépendance Afrique mën na euh, dépendre si boppam pour développer wane ni africains yi am nañ capacité yu toll ni yi nasaraan yi am ndax fu ñu dem si àdduna dañuy compétir ak ñoom te duñu mën te ñun mënu ma gëm Sénégal foo waxee ñu ne ay intellectuel lañ dañoo mën a jàng dañoo mën nangam foo dem ñu am meilleur footballeur te mënuñu am équipe football bu baax foo dem ñu am meilleur expert te duñ Sénégal dara mënu faa dox kon loolu tey moo waroon nañu rassembler loolu lépp doon symbole Sénégal foofu laa ko doon xaaree bu nekk di fier sa bopp wane ni tey lu mag ñi mënoon rek tey xale yi mën nañ lu ko dàq. lu ko gën lu ko gën a baax ñoo ëpp vivacité ñoo ëpp njàmbaar ñoo ëpp xarañte foofu laa doon xaar Macky Sall moo tax tey lépp looy jàpp ni baax la na ko man dama gis ni war na mën a def lu ko gën waaw. lim fi def mu baax nit ñi teg si bët muy centre Abdou Diouf bi rafet na mais am na njëriñ amul njëriñ nañ ci wax bi ñu defee francophonie ba léegi entretien bi ñaata la ñuy côté ak lan lañ fa defaat leneen loo indi mën nañ la see tegal point par point te loolu lañ soxla buy bu bu jëlee décision ñu toog waxtaan si. génne li ko gën pour que ëllëg si biir ñu am loo xam mooy li paax mais buñ kontante ni toujours que niveau bi la ñu war a yem def ay taux de croissance ay un point cinquante non bokkuñu loolu dañoo bëgg ne en tant que deuxième puissance en Afrique de l'Ouest mais fexe bay am taux de croissance ay deux chiffres foofu la ñuy waxee te mécanisme yi ñu ko may am nañ fa xaalis bu ko may am na fa xarañte sénégalais yu ko may am na mais waruñu exclure benn doomu Sénégal si développement Sénégal rien que bokkuñu parti wala tey adversaire politique loolu moo rafetul te moom moo ëpp si doxalinam loolu rek la. jërëjëf moom jërëjëf euh, Suppa Ngaaka bismillah. waaw am na salaamaaleykum. waaleykum salaam. ça va na ngeen sant wér mbaa jàmm am. ñu ngi sant bu baax baax waa Amath maa ngi dégg ngeen di wax a trente mars de waaw mais yéen mais yéen mais trente mars bi fu mu toll nii Amath yéen dafa am ki nga xam ne man moom laa jox coupe bi ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg. waaw man dafa am ki nga xam ne man moom laa jox coupe mooy euh, trente mars bi koy wax moom wax dëgg yàlla xanaa euh, Moustapha Niass moom kenn jotu ko ci. moom li nga xam ne moom depuis indépendance ba léegi tey fi depuis indépendance ba léegi gouvernement bu ñëw moo ngi ci biir. mais loolu du transhumance. waaw mais non c'est non non mën na mën na ko tuddee transhumance ah aussi. parce que xam nga ñaar no non attends xam nga ñaar yi sax mën na ko bañ a tuddee noonu bu ñu neexee c'est parce que ñaar ñi mën naa ne comme par exemple euh, dafa jël partem boole ko parti euh, Abdoulaye Wade ñu gagné après Abdoulaye bi tamit même chose ñu noo dafa jël parteem boole ko parti Macky Sall jàppale ko deuxième tour mu gagné ñu ne ko ok kaay jox la poste bi kon donc moom doomu la bëgg wax ne la maanaam mos na yëpp moom moom daal nguur gi mos na commencement ba fin maanaam fu mu toll ni buñ doon wax mun na buñ doon buñ doon wax ne waaw fu mu toll ni moom dafa toll si cooki fin parce que euh, euh, leer na ko ne moom fu mu toll nii quelles que les affaires mi ñu taxawoon ne Abdoulaye Wade doy na je pense bien que taxaw na moom tamit war na loo taxaw ne ko doy na moom Moustapha Niass ci bokkal teel na xam loolu mu taxaw moom de moom au moins sax dem na trois Iba Der Thiam même chose dem na trois gis nga c'est que xam nga gis nga troisième manche bi euh, lan moo koy gën a indi en général amaat nguur dafa neex. nguur dafa neex boo perte pouvoir nag boo gëmul yàlla ñu rek ngay moo de il faut nga transition il faut il faut nga jóge sa parti yaakaar na sa parti mënoo am li nga xam ne moom nga bëgg donc si beneen parti bi nga koy seeti amat kii ba mu commencé Sénégal bu mu commencé jot ay fonction ba léegi si indépendance ba léegi mu ngi si biir gouvernement yëpp mais tey jii moom Moustapha Niass lu tax sax ma indi Moustapha Niass c'est parce que Moustapha Niass dama yaakaar ne moom ku war a mun a redresser baaru assemblée nationale la moom Moustapha Niass mais fi ñu ko xaaree population bi gisuñu ko fa gis nga am nag bu fekkee ne na ngay liggéey sa réew sa réew dong tax laa jóg des fois na nga jël affaire politique nga teg ko de côté gis ne yow sa jëmu bopp yow yaa ngi si affaire assise yi xam nga Moustapha Niass moom xoolul bu baax a baax sax exemple moom lu muy def moom moom li muy def xamu ko te parce que dafa mel moom euh, euh, donc euh, position bu nekk am na ko si gouvernement bi position bu nekk am na ko si gouvernement bi leen rek moo ko defee muy chaise ba loolu dong moo ko defee wax dëgg yàlla sincèrement war naa taxaw pour asaru Sénégal mais nag bu fekkee ne dafa ñëw ak ki nga xam ne moom mooy président président lu mu bëgg ci assemblée nationale noonu lay demee am na fu mu toll ni man dama xamul exact Moustapha Niass wax dëgg yàlla man dama gisul dama gisul poids am biir assemblée nationale gisuma ko quoi parce que moom xam na dégg na lu nit ñi di jàmbat dégg na yu bëree bëri yi nga xam ne ah assises nationales yëpp mu ci woon am na yu bare bare yi nga xam ne waroon na ko mën jàllale en tant que président de l' assemblée nationale mais seen bopp ak fa nekkal waaw. te nag am na benn jàngat bu ma jàngat bu sori bu nar a ñëw te yegg def jàmm nag que maa ngi dégg amaat est ce que yow carte nationale dafa yomb Sénégal. carte fan yii xaw na fa jafe de. merci amaat ñu bëgg a tourner encore ne dañoo bëgg dafa ay carte yu bees. gis nga c'est gis nga il fallait ñu prévoir lu ñëwagul ay affaire yu ñëwagul waaye il faut ñu prévoir ko te gis nga kii fu mu toll xam nga nee na moom boo xoolee amu fi benn gain bi nga xam ne si yaakaar na ne moom nekk na opposant fi ci ci élection yu ñëw donc moom c'est acquis gis na ne moom dafa war a gagner quelque soit dafa war a gagner te gagner boobu noonu bu ci Sénégal yi d'accordul xam nga fan lañ ko njëkk a ci 2017 bi ci 2017 bi bu ko naree dépassé si la ko gars yi nga ko won ne yëngal tuuti delluwaat toog déglu ko nag dinañ ko won ne ko non ba pare delluwaat toog c'est parce que ñun suñu yoon nekkul si li nga xam ne moom nga ñëwee ak sa campagne mais sa campagne tamit dafa am ay wax yi nga xam ne ñun moom lañ ci tenir en considération am na kii ba mu ñëwee lan la fi wax affaire damay wàññi lii en ah, train de vie état bi dafa métti ah li ñu autonome xaj bi def ni def ni première premier même première en en fin de bi ñu defoon sax ah ko waroon organiser sax ñu ne ah waaw kii moom vraiment ça mu jékki-jékki rek accéléré mais foofu itam yow accéléré bi nga accéléré bu fekkoon ne nga accéléré sax jëm ci baadoole yi sax amul problème mais na nga accéléré fekk tool bu naat ba pare. gëm laa di ko gënal di mais kamoon kamoon man et puis am na xoolal xoolal xoolal comme comme comme comme action bi dem nii fu mu toll nii muy affaire affaire affaire euh, euh, euh, jabaru gars yi ñu joxe jox leen ay cinq cent mille francs mais am na dafa am yu sew yi nga xam ne wax dëgg yàlla même boo ko mënee sax xoolaatal xoolaatal boo xoolee télévision xool ci àll bi ci ginnaaw di nga gis nga xam ne wax dëgg yàlla ñoo gën a mérité lii ngay jox ñii ñii seen dëkk mun na leen gérer sax parce que seen dëkk da leen jël seen kër yaay tax leen yow amoo pour gérer gouvernement bi bëgg a gérer jabaru jàmbur bëgg pourquoi pour la yëpp lool waaye nag amat man maa la ko wax xaaral tuuti rek du yàgg daar di nga gis di dégg ñu wax loolu si affaire carte yi parce que carte d'identité nationale yooyu ñu bëgg a defar ak xaw ma kii yu bees yooyu noonu lu ma wóor te mooy dinañ ci def ay affaires yi nga xam ne si moom moo koy fal par la force 2017 loolu moom man maa la ko wax il faut le waaw loolu moom nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax yow mënoo fournir carte d'identité yi nga xam ne moom mooy les anciens carte d'identité nga bëgg génnewaat yeneen nouveau carte d'identité mais mais loolu loolu mooy lan. baax na Amath encore une maa ngi déglu. jërëjëf. waaw maa ngi déglu ba ci kanam a kanam incha allah. jaajëf euh, Amadou Mbow bismillah. salaamaaleykum Ka Amar. Amadou Ba jàmm nga am. waaw ça va def. Eh, sant bu alhamdulilah. mais avant tout maa ngi lay féliciter si nomination bi nga def tey. <laughs> waaw loolu la benn bu baax. benn poisson d' avril la boo xam ne sama gars yi dañ cee. <laughs> oh. wax dëgg yow. <laughs> waaye yow man dama kaa gis damaa kontaan. mu billahi looloo tax ma woote Amath bàyyi saboté quoi poisson d'avril la woon bu nekk voilà euh, benn xibaar tamba point com benn boy bu nekk tamba bind ko alors gaa yi doon ma woo depuis tamba moo tax ma def précision boobu ci Facebook bi poisson d'avril la quand même. Oh, man liiru ma kii bi damaa gis nomination bi rek ah, ah <laughs> lii nag wax dëgg yàlla nice na quoi. mais dara dina ñëw de incha allah. Ah, poisson wax day dëgg waaw ndax mérité nga ko te yelloo nga ko aussi wax dëgg yàlla. dëgg la. mais avant tout maa ngi nuyu ñëpp ngi remercier gars yi ñëpp di remercier di nuyu aana bu baax di nuyu gars yëpp ci nekk ci panel bi daal. mais Amath man daal Macky Sall li ma koy li ma koy li ma koy digal nii instant bi da ngay mel ni élève bu nekk seconde rek war a def terminal ci ba nga nekke seconde ci nga war a commencé di jàng di jàng say leçon di def say exercice loolu mooy tax nga réussir terminal mais boo bàyyee ba nga xam ne jàngoo bàyyi ba nga xam ne léegi examen jot nga ne dangay dem ci sëriñ mu lay mu lay bind mu lay big boo xam ne loo bind rek da ngay jàll loolu da ngay nax sa bopp te boo xoolee moom jeu bi lay instant bi instant bi dafa waroon liggéey def seet que yi di ko di ko falaatee pour deuxième tour mais ku mel ni dof siise siise loo naan ay xawma bu ko xaalpulaar yi fale ak séeréer yi rek dina am quatre-vingt pour cent loolu mu ngi nax boppam ndax affaire yooyu moo jeex Sénégal léegi Sénégal léegi nit ñi dañoo yeew kenn mënatul leen laax nit ki nag bu fekkee da ngay liggéey dara ci commencement bi nga koy def mais doo bàyyi ba nga xam ne benn année moo la dese wala deux ans nga nekk fii di tànqal nit ñi naan lii ak lii bien vrai que man am na foo xam ne du ci ànd ak yenn nit ñi quoi parce que nit ki tamit am na loo xam ne lenn mu ngi fay mu ngi fay liggéey wala mu ngi fay def effort loolu dañ koy c'est quelque chose à saluer mais tamit bu fekkee da ngay critiquer nit ki ne lii lii baaxul carrément lu muy def dara baaxu ci te au moins am na fu muy jéem a lu mais am na foo xam ne ànduñoo ak moom maanaam muy transhumance yi ak euh, institution yi niñ koy bafoué nii instant yooyu yëpp ànduñu seeg moom mais boo xoolee benn plan benn côté tamit am na foo xam ne ñu ngi fay gis yenn avancement yi quoi parce que nit ki tamit loo booy wax rek da ngay wax rek sa aqutalaay taalaaw moo tax ngay wax dëgg quoi man man man ci sama wàllu bopp wax dëgg yàlla Macky Sall man bokkoon naa ci ñu ko fal mais instant bi moom am na yu muy doxalee yu bëri daal loolu moom baaxul ko quoi te loolu baaxul ci moom ndaxte 2017 wala 2019 quel que soit alpha buñ ci mën a def ci élection bu demee ba boobu dina gis conséquence yi. man daal loolu laa ci amoon lu may wax mais man lu ma gënoon lu taxoon ma gënoon a dugg daal mooy nomination bu ma gis ñu def ko ci yow moo taxoon ma gën a dugg. <laughs> encore une fois encore une dina ñëw incha allah maa la ko wax. Mm, yàlla baax na Amadou. waaw yàlla baax na yàlla waxoo kenn dara nekk nit ki moom xamul ëllëgam mais teyam rek la xam ko dëgg la. waaw merci. dëgg la Amadou di ko jaajëfee bu baax a baax a baax a baax Amadou poisson d'avril la. alors euh, mbokki Texas bu leen ko fàtte le 4 et 5 euh, week-end euh, célébration fête de l'indépendance du Sénégal fii ci Houston vendre samedi le 4 soirée sénégalaise soirée dansante bu am solo samedi le 5 mu nekk yendu foofu ca park ba ñu indi xale yi à partir de midi. Euh, ñu yendu am na ay jeux am na ay lépp am na march de football am na match de basket aussi euh, lépp ñu rek sargal li nga xam ne moom mooy suñu réew yëkkati ci ko ci kaw a kaw a kaw a kaw a kaw alors di leen rappeler aussi que ni comme chaque année ni koy defee ah commencé nañu li nga xam ne moom mooy euh, sunu annual fundraising maanaam chaque année ñu def collecte de fonds ah ñu commencé ko tey jii nii pour mu terminer le 8 incha allah Euh, donc euh, bu fekkee ni am ngeen Facebook xam na ku ci ñëw sama page di ngeen ko fa gis ah benn go fa go GoFundMe ah euh, boo bësee ci bouton bi rek donné dina la jox ah, fi nga war a jàll yëpp pour yóot ñu li nga xam ne moom nga ñu yéene bu leen ci xeeb dara alors ndax ñun ñu ci dara même bu fekkee ni aussi am na benn. Euh, nu mu tudd euh, target boo xam ne am na fa mais bon GoFundMe mi mooy doxee noonu yéen bu leen xool ci target boobu xool leen li ngeen yéen rajo bi alors ngeen jàppale ko ko comme ni ñu koy defee chaque année incha allah démarré na tey alors ba le huit incha allah lay daal di jeex donc ñu ngi konte ci yéen pour encore gën a jàppale rajo bi comme ni ngeen ko doon defee saa su ne euh, ñu gën a war a mun a wuti nag boobu ba tey ay ay ay nu mu tudd matériel yu performant ah. Ah, war nañoo wut nag léegi li nga xam ne moom mooy mag ah, war nañoo toll ci mag nag ah comme yeneen rajo yi ah booba tey ñu ngi ci lan Sony ah war nañoo dem ci mag nag xam nga mu gën a performant gën a leer ah téléphone yi doon dagg yi dootul am donc yooyu yëpp. Ah, am nañu am nañu sañ loolu yëpp ci xeetu xeetu meew la quoi xam nga meew bi rek. waaw mi ñu wut rek pour. Euh, waaw pour njaboot gi mm. kii mais bon pour euh, pour euh, pour pour auditeurs yi la voilà mi ngoog. Mm, mm, donc yooyu yëpp ci ci xam nga daan suñu doole rek donc ñu ne war na ñoom dem wute mag yi xew mag bugg yu xew yi nga xam ne vraiment c'est beaucoup plus performant. non mais teguñu kenn lu mu mënul lu waay yéene rek na dem ci page Facebook bi alors bu fekkee amul leen ko aussi euh, mun ngeen ñu jox seen email ñu yónnee leen ko alors ngeen euh, barkeelu ci. alors euh, suba nag incha allah soxna Anna ak man dafa am benn thème bu am solo boo xam ne vraiment suñu benn nit moo ñu ko posé question alors mu nekk mu jëm ci wàllu bien sûr mariage wàllu koo xamee ni dafa. am jabar signé euh, monogamie ba pare ba signé ko dem nag di dund polygamie conséquence su acte yooyu la ñu bëgg suba waxtaanee ko mais surtout ndaw si nga xamee ni moom la ñu takkoon mu sëy fa boobu ba tey jëkkër ji ñëw xëy malgré que signé nañu monogamie mu dem takki deuxième femme yaay ji ni ko dama bëgg nga toog te muñ lu la fa fekk nga xam ni loolu mooy sa wërsëg ñu lay dóor ñu lay saaga ñu lay xas ñu abandonné waa ji ndaw nee na waa ji ba mu takkee ba tey dafa mel da koo yaa ji ne ko toogal rek sunu xeet kenn musu cee tas kenn mu musu cee fay doo puus doo randu doo dandu toogal rek bu la ciy fekk fekk la ci te ngeen ne moo la ciy fekk alors ndaw si nag dem na ba benn instant xamatul ndax léegi dafay war a continuer di déggal yaay ji wala dafa war war a wut beneen solution donc euh, bu subaa bu 9h jotee soxna Anna ak man incha allah dinañ fi ne. alors euh, Marco séeréer la. <laughs> mais Amath. waaw. moom xamuloo ndax yaay ji tam wax na ko ndax ñoom seen xeet bari ay euh, stress ak high blood pressure kii wala. ah boo moytul nag ndax toog toog rek ñu dóor la ñu saaga lu ñu di def nga toog rek sëy waaw mais mais mais mais mais aussi tamit suñu jigéen ñi noonu lañu daan sëy da ci daan am ngëneel nag yu bare bare bare bare bare dama xam ne rek kii quoi <laughs> mais loolu bu subaale incha allah mbokk yi gërëm leen sant leen ci seen ànd ak 3w point seneweb point com fii dañuy yemalee waxtaan bi ba suba incha ci kàttanu borom bi di leen remercier encore une fois de plus alors euh, Ibou maa ngi tey moom tey moom yore laa ndax <laughs> eh, ba ma ñoom ba ma ba ma ñoom moor ba ma ñoom sëriñ ñoom sëriñ sàmm yëpp <laughs> yow li ma ko waa tey ma nekk ci rajo ma la kenn ci compagnie quoi <laughs> waaw ko ah, oh. waaw ku am fukk def lu waay def rek mi ngoog incha allah dañuy màjjaal rek kon foofu la ñuy tàggoo ba suba incha allah euh, ci kàttanu borom bi yàlla defal jàmm ñu koy sàkku ci yéen it yëgle moo xam fu ngeen mën a toll jokkoo leen ak waa Seneweb ci plus plus 1 301 591 17 09 adresse